sina bu weeru safar ñëwee gannaaw bu ñu ñaanalee Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bassirou mu yàgg fi lool te ànd ak wér comité d'organisation ومكنوني بالله جل وعلا رحمن مقتدرنا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 yéen waa réew mi ak waa bitim réew yi nga xam ni yéenay topp seen jotaay bii di jotaayu xam-xam akuk taalube nga xam ni mooy am guddi ajuma ju jot ngeen ànd kook seeni ñaari mbokki jullit waaye seeni ñaari mbokki taalube muy Boubacar Konaté mu sëriñ Béthio ak boroom xam-xam bu mag bi sëriñ saaliwu sàmb mu Serigne Béthio sëriñ saaliwu maa ngi lay nuyu bu baax di la ndokkeel bu baax te di la ñaanal jàmm di rafetlu sa taxawaay ci liggéey bi nga xamante ni moom nga nekk di def boobu ak tey te waa réew mi di ko rafetlu saa woo saa kenn ku ne di ci jotale say kàddu te di la bëgge bu baax a baax tey amaan mbégte nag akuk cat ci euh, jàkkaarloo waat ak yow ngir ñu jàkkaarloog réew mi ngir waxtaan ak ñoom ci xam-xam waaye nag waxtaan ak ñoom ci fànni xam-xam yépp nag te saa su ne téléspectateurs yi di ko rafetlu kon maa ngi lay jox kàddu gi bu ko defee nga nuyoog euh, askan wi jërëjëf. ahasani lbaaqi min alcheytaani fi kulli majlisin wa fi l awtaani xibaadati btadaxtu bismillahi wa huwa kafaaniya zawil malaahi wajjaxtu kulla alxamdi wa shukuri lil maliki rahmani wa shakuri salli wa sallim wal tubaarik sarmada xalallasi sammaytahu muhammada wa alihi wa sahbihi wal anbiya waskurtihi almuqaddamati rabbiya wasarax biha sudura man taxallamu sarxan bihi la taxtarihim sulamu lil mustafa salli dawaaman fii safar xayra salaama sil agisi saaqu far mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki réew mi ak bitim réew mboolem téléspectateurs yi topp leeral TV ñoo ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di leen nuyooti kon ki seen jotaay bopp bii ngeen di ànd ak noonu guddi àjjuma gu jot di jotaayub xam-xam ak ku taalibe ci waxtu wi noo ngi ñaanal ñëpp jàmm te di ko ñaan ci réew mi waaye alaaji Boubacar noo ngi lay fay am nuyoo waaye noo ngi la ci sofalit am nuyoo tey rafetlu sab jotaay tey ñaan suñu borom yokk sab xam-xam yokk koo barkeel te dolli sa fasaaxa liggéey ba am solo bii ngay liggéey ci lislaam bi te di ko jaarale ci toolub Sëriñ Tuubaa bii nga yeggale ko ak sa sago te nu ànde ko waaye alaaji Boubacar maa ngi lay jot di jottali euh, nuyoo euh, jëwriñ Samba Diallo jëwriñ Samba Diallo di taalibe sëñ Moutalam sëriñ Saliou ndeysaan jëwriñ Samba yàlla ko yàlla yóbbu waaye doon koo xam ni soppeeb jotaay bi la lool dëgg la kon noo ngi koy noo ngi koy noo ngi koy nuyu te di ko ñaanal lu wér. wallaay ndeysaan. waaye Alaaji Boubacar sëriñ Adi Touré Thiam di turandoo ki sëriñ Adi Touré. sëriñ mu mag ma mu mag mu baax ma. borom xam-xam bu maa ngi lay yëgal ni nag njabootam nga taalibe mi ñëpp dañuy topp jotaay bi. ndeysaan ah, ndeysaan. ci noonu la ñuy siyaaree sax al mudir. Mhm. sëriñ Abdou Assis Touré. te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér. amiin yaa rabbal waaye sëriñ Adi Touré Thiam ñu tudd ko sëriñ Adi muy mhm. taalibe sëriñ Babacar waaye honorable député Ousmane Thiam di taalibi sëñ Adi Touré dëgg la maa ngi daj ak ñoom ñuy lu lool jotaay bi alhamdulilah tey jottali seen nuyoo bu baax a baax a baax dëgg la waaye Alaaji Boubacar eh, eh, directeur général LPD. Mhm. moom lañuy wax El Hadj ture Touré. El Hadj Habib moom day topp jotaay bi lool te di ko safoo. moom daa bëgg diine moom. daa bëgg diine te diinee dëgg la kay. kon koy ñaanal lu gu wér. amiin waaye maa ngi lay jottali nuyo bi sama benn jigéen bu ñuy wax soxna Sadiyatu Fall. dëgg la. ca Ndar di Euh, di nitu di di di sërif ndeysaan waaye di topp jotaay bi lool moom ak moom mboolem waa xadara ba ndeysaan fii nu toll sax ndeysaan ñu ngi lay yëgal ni ña ngi ca wattaayu euh, takkusaan borom Ndiassane fii mu ne waaw le 6 septembre ca Thiès waaw ñoo ngi koy defee ca saal Euh, euh, Sali Faye ah d'accord waaw mooy Sall Kilim Sali Faye fa lañ koy defee le 6 septembre takkusaanu borom Ndiassane ah, waaye dañuy soppay borom jotaay bi loolu ñoom di suivre jotaay bi fu ñu toll eh, ñu toll ndeysaan kon noo ngi leen di nuyu ñoom ñëpp tey sopp jotaay bi soppee jotaay bi yëpp ah, tey ñaan yegg ci ak jàmm ndax si Saliou jotaay bi moom tubaarkàlla tubaarkàlla mel na ni saa su nit ñi ñu ngi woote mm-hmm. ñii di yónnee ay message ci ci whatsapp bi wallaay ndeysaan wallaay ñii ubbi sax ay groupe whatsapp wallaay wallaay ñoom Sultan Fall ñoom de yitte jën def ci jotaay bi sa kii ma laaj bookar di yitte woo jotaay bi saa su maa ngi lay indi nuyum nag mu Fall Moustapha ma nga ca ñoom Sultaan. ca ah. groupe bële. an ah, ndeysaan waaye du tardé jotaay bi. wallaay wax nga dëgg. wax ah, nga dëgg nuyu bu baax. ak waa Café ga dëgg la dëgg la. yitte ji ñuy def ci jotaay bi. yitte ji ñuy def ci jotaay ñoo ngi lay bëggee bu baax Serigne Saliou di la jottali nuyoo sëñ Xaadim Kebe. ah ndeysaan jàngkat jàngkat bu mag bi yal nga xam ni moom ndeysaan moom day soppe jotaay bi wallaahi ndax yàlla dafa def moom muy ku bëgg alxuraan moom fu ñuy tuddee alxuraan rek mhm. rawatina nag di ko tudd Euh, di di di tudd Serigne Touba. wallaay ndeysaan moom daanaka day day jël moom. wallaay wallaay wallaay moo tax saa su ne mi ngi topp jotaay bi moom itam. ak mhm. mboolem seen soppee jotaayoo. xam-xam ak taalibe ñoo ngi leen di nuyu te di leen bëggee. Mhm. di ñaanal ñëpp jàmm Serigne Saliou mel na ni. Mhm. ah dugg si nañ ci safar gi nag. ah agsi na nag yoru mag wi. ndax xam nga weeru lislaam yi. bésu lislaam guddi gi mooy njëkk bëccëg gi mhm. loolu mel na ni jotaay bi indi woon na ko leeraloon na ko kuy dox ci xamariya mhm. xam nga ni guddi ngay njëkk am bëccëg wallaahi wallaahi ba tax na suba la benn fanu safar suba la première kon nag mel na ni guddi ajjuma ji mhm. gisoo ajjuma la ñu la ñu ne waaye dañ naan guddi ajjuma kon dugg nañ ci ajjuma kon première safar dugg nañ ci guddeem ba ñu jullee tàkkusaan rek wallaahi ba jant bi tàmbalee so rek wallaahi maanaam ci lañ dugg ci weeru safar kon fii nu toll moom dugg nañ ci weeru tedd wallaahi wallaahi xarajtu yow ma sabti saamina Muxtar. Euh, li xidmatil Muxtar yi. fii sëxri safar dégg nga sëñ Tuubaa fii sëxri safar. fii sëxri safar. nga xam ne moom daa tudd weer wi. wallaay ndeysaan waaw weer wi ngir ngir ngir ngir li ci yàlla feeñ. wallaay subhaana fii safar. sannata jay sa siin. waxibtu za safar za safar. kon safara ngoog. safara ngoog ñu ciy ndokkeel mboolem seen murit yëpp nag. waaye di ci ndokkeel mboolem seen jullit yi. wallaay waaye di ci ndokkeel mbindeefu yàlla yi. wallaay wallaay ndax xam nga ni safar. Ah. muy màggaluk Sëriñ Tuubaa gi. dafa universel universel te xam naa ni loolu jotaay bi dina ko beral jotaay yu boppam maanaam du pour murit yi kese déedéet wala muy pour jullit yi kese déedéet wala muy pour pour pour pour nit ñi kese wallaay déedéet sëñ Tuubaa dane lii kun bi kun sarmadan wajhal masiri yasa jawfal fara lil wara mislal mahari mislal mahari waaye jawfal fara lil wara jawfal fara lil nee na sama tukki ma tukki woon ci weeru safar wallaay yàlla da koo def muy pajuk aajo mm-hmm. ñu ne ko lil muridiina mu ne déedéet kon mu gàtt lil lil lil muslimina kon mu xat mu ne déedéet day gën a xat. lil naa si nag lil mu ne déedéet ba léegi day xat. kon nag lil. lil waraa. mboolem mbindeef mboolem mbindeef yi rek. mu yàlla sàkk rek. yàlla kum sàkk ku ne rek. Mhm. nee na defal na la ab cër. ci 18 safar ci 18 safar kon weer woowu nag buñ ci duggee. war a ndokkeel mboolem seen. wallaahi kuy mbindeef ku yàlla bind. waaye noo ngi ciy beral nag am ndokkeel akuk ñaan mhm. ki nekk jotaay bi Sëriñ Tuubaa bii wallaay di Cheikh Mamadou Muntaxa Cheikh Mamadou Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér te yàgg woote màggal gi wallaay ndeysaan moom naal yii mu naal wallaahi ak liggéey bu rëy mu sumb wallaahi yàlla na ko àggale ak sago amiin barkeel Sëriñ Tuubaa ndax day sago mhm. moom Cheikh Mamadou Muntaxa wallaay yàgg te ànd ak wér ni ko njaboot gi taalibe seen njabootuk kuy dégg suñu kàddu kon Sëriñ mel na ni kon ñu dugg si ci jotaay bi. waaw ah, mel na ni fil na signal de. jàngaloon nga ñu nag li kulli maqaami. maqaal maqaal. wallaay ndeysaan kon nag mbir mu ne. Mhm. da koy adapté ci contextam am. wallahi te jotaay bi day dox ci actualité. Mhm. kon nag mel na ni fii ba booba. wallahi mel na ni jotaay bi du génn. Eh, maanaam safar gi wallaay màggal gi. tey nag damaa bëggoon. ñu mm. indi thème. ñu andi benn thème. comme d'habitude. Mhm. waxtaan ak téléspectateurs yi. thème bi nag bi ñu andi jotaay bi tànn ko tey. mooy l'essence du màggal de Serigne Touba. l'origine du màggal de Serigne Touba. dëgg dëgg li waral màggalu Serigne Touba dëgg dëgg li waral màggal Serigne Touba gi mooy lan. Mm-hmm. parce que mm-hmm. màggal gi siiw na. siiw na am na une dimension internationale. wallaay ndeysaan fii ba bitim réew. Mm-hmm. nit ñi dañu koy màggal. Euh, foo dem ci Sénégal. nit ñaa ngi koy màggal. màggal googu it am na sabab. am na lu ko waral. te sabab bi mel na ni koo laaj rek. am na prétexte bu mu lay jox. Mhm. xamal ne la màggal gi lii moo ko waral ñii ne màggal gi lee moo ko waral ñii ne màggal gi lële it ko waral. wallaahi te benn boo ci jël it boo ko toppee ba ci biir da ngay mhm. xam ni ci sabab yi la. ci sabab yi la bokk. waaw moo tax tey damaa bëgg. Mhm. ñu ñëw waxtaane lan mooy sababu su màggal gi. ndax day tam bu am solo. Serigne Sall bu rëy rëy rëy rëy la. day tam bu am solo. wallaahi ndeysaan. boo xamante ni. tey bu ñu la laajee lan mooy yillay màggal gi. mën nga ne ah sëñ bi kat euh, mooy bis bi mu génnee Mbàkke yi daa di jàll ndar ba tax mu ne xarajtu ba tax mu ne xarajtu yow ma sabti saa mina xasar li xidmatil moxtaar yi xarajtu mooy hmm. génn naa génn naa yow ma sabti bisub samedi bisub gaaw bisub gaaw hmm. saa mina xasar fukki fan ak juróom-ñett ci ci weeru safar fii sahri safar li xidmatil moxtaar ngir liggéeyal yi muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa am na koo xam ne da koy laaj hmm. lan moo waral màggal gi mu ne la màggal gi sëñ Tuubaa daa am lu mu bëggoon ci yàlla mooy Euh, maqaama yooyu xutbaan yu yooyu mooy ba mu duggee xalwa mooy ba mu duggee fii ci Daaru Xuddoos ba rasulilah ba rasulilah salaay salaam feeñu ko. Mhm. waxtaan ak moom. Mhm. mu am daraja yu mu xemem. Mhm. yonent bi ne ko ay nattu laa koy wotee natt yooyu moo sabab. tukki bi euh, tukki bi. ñu ne daa ñëw ne ko xutbaani yaa ngi nii. ñeent ñeenti weer la ci des woon waaye taxañal nan la ko. mu ngoog sëñ Tuubaa ne ko rëy na loola bëgg naa la ko. Mhm. ana loo bëgg mu ne ko ñii la dar mhm. muy ahlu badrin mhm. te foo jëm nu jëm ci laa bëgg a bokk dëgg la mu ne ko la koy mayee kat wees na mooy tur dareet mu ne ko waaye nag benn bunte ki des te mooy nattu yi te yërëm naa la ci mu ne ko bu nu ma ko tegee ma muñ lépp loo xam ne rek bakkan da ko ciy muñ bu ma yàlla téyelee róogi am nañu ne loolu la am nañu ne loolu la ak lan am nañu ndeysaan ñoo xam ni sur le plan politique. Mhm. dimension politique bu màggal gi. Mhm. mooy sëriñ bi. yàlla da ko sédde mbooloo mhm. ndax man la ka ni xolu ba jum la tasi xaar sëñ tubaa nee na xolu xolu ndaw ñi yàlla moo a ko moom loo ma ko moom ma ni ko bàllaay sa ak mag ñi walaay moom moom <laughs> yaa moom jë laanat li yal xulubu wal abdaanu walaay ndeysaan saalama ni bii daanu wa suudaan alhamdulilahi rabbil alamin yàlla daal mboolem xol yi uh-huh. mboolem yaram yi ñu weex ñi ak ñu ñuul ñi ñëpp la ma mayandoo. ñëpp la ma mayandoo. kon day mel ni ñëpp ko jublu kon du Touba Ngok. Mhm. léegi léeg-léeg ñu ne la boo jàngee ci taarix. Mhm. lire archive nationale mhm. xool histoire. ñu ne la sëriñ bi kat daf fee nekkoon mbooloo mi jublu ko. Mhm. te mu nekkoon nag ci centre ci Sénégal. Mhm. ci métropole bu mag mooy Bawol gi mu nekkoon. Mhm. nga xam ni Mbàkke Mbàkke Kajoor la jóge Mbàkke Bawol Mbàkke Kajoor. Mbàkke Kajoor. Daaru Salaam Daaru Salaam Daaru Salaam Touba. Touba jàll Mbàkke Bari waaye fu mu ci nekk rek. mel na ni mbooloo mi dañ fay bëri lool. xam nga ni bi muy jóge Daaru Salaam. wallaahi ña jébbalu woon te ci jébbalu woon Mbàkke Bawol. ñoom ñëpp dañ leen a boole. Mhm. jébbal leen keroog. Mhm, maam Cheikh Anta maam mhm. waaye xam nga ni. mbooloo moomu doon wuy si sëriñ bi ndax kéemaan yi mu doon woote ak yëg gi ñu doon yëg ci moom mbirum yàlla dafa tax mbooloo mi bari ñu ne ah kon da doon constituer nag menace ci tubaab bi ndax booba euh, colonisateurs yi ñoo fi nekk ñoom li ñu bëggoon mooy nguur dajale mbooloo ñaareel ba mooy muriti àddiyee lañu yor tubaab bi di laaj impôt impôt bi ñuy laaj moo gën a yomb addiya ji ñuy joxe. Mhm. addiya ji mu yi dañ koy jël di ko dajale di ko jox suñ Tuubaa ba di ko ko jóoru mhm. mooy di ko joxe joxe nu woo xam ne du leen ko laaj. ñoo mhm. xam ne kon kii moom moom nit ñi seen xol. ñu ne waaw kon kii est-ce que du xëy. bëgg a woote ak nguur bokk loolu dox jàmmarloo diggam ak tubaab bi te loolu suñ bi da koy wax dégg nga bi mu naan waxaala bay nii wa bay na nasaara wa addaxala fi bi xaw fa min nii wa faxalu kon tubaab bi def nañ ko léegi am ñu ne la dimension politique gu màggal gi kat mhm. mooy tubaab bi moo joteeg sëriñ bi ndax dañoo ruuxale sëriñ bi ak tubaab bi mhm. loolu moo sabab tubaab bi ñëw jël si ko yóbbu ko mhm. yóbbu ko ci géej gi ñu ne kon jàpp nga ko tubaab bi jàpp ñu ne kon jàpp ko tubaab bi jàpp ba mu demee ba indiwaat ko ba mu demee ba indiwaat ko mu indi màggal gi léegi nag yooyu yëpp dafa daje mu mel ni sëñ tubaab dañ ko laaj ne ko waa Mbàkke lan moo waral màggal gi waaw léegi nag dëgg dëgg daal bëggoon nañ nga gàggante bëggoon nañ nag nga gàggante ñu lan moo waral màggal gi sëriñ bi indi genn jumla joo xamante ni. Mhm. bi mu koy wax mel na ni dafa jéggi lépp lu jëm ci wàllu àdduna. Mhm. daal di am fu mu aj dimension wu li waral màggal bi. Mhm. li tax ñu tànn thème bi nag. mooy lii mel na ni ku ko xamagul. mel na ni yow mënugoo comprendre màggal gi. lan ban dimension la am la dimension spirituelle du màggal. te boo boo comprendre dimension bi màggal gi am. waaw doo mën a comprendre dimension borom màggal. doo mën a comprendre dimension borom màggal gi. Mhm. Serigne Touba wax ci benn jumla. muy benn mhm. phrase. Mhm. daan ne sababu haybati. an allaha. araada. an anaala. minhu jaa. wa an akuna. shaafihan li qawmi. wa an akuna. xaadiman fi daw. wallaay ndeysaan. daan ne sababu haybati. li sabab sama tukki bii. sama génn gii. ñu ne ko lan la mbàkke tubaab bi moo ñëwoon ndax danga ko doon menacé mu ne déedéet. jiitu na loolu jiitu na loolu mhm. kon du daraja yooyu ñu wax ñi da nga bëggoon mbirum xutbaani yu di ko laaj yonent bi mu ne la daraja ji ay natt moo koy wotti mu ne di waxul loolu ci ci jumla mu ne jiitu na loolu mu ne jiitu na loolu mhm. ñu ne ko waaw mel na ni kon ah, mel na ni daal yii ñu tudd yëpp kon du loolu mu ne yii ngeen tudd yëpp yu ndaw la waaye am na lu ko jiitu am na lu ko jiitu loo xam ne ca ca bànqaas ba lay jàpp maanaam yi ngeen jot a tudd yëpp ne mooy waral màggal gi waaw yéen ñi ni tukki bee hmm. yéen ñi ni tubaab bi ma jàppa mhm. yéen ñi ni daraja ahlu badin ji ma bëgga waaw yéen ñëpp wax ngeen dëgg waaye loolu sababu saahir rek la loolu lu saahir kese la loola am na lu ko jiitu lu ko waral waaw daa ni garab gu taxaw mhm. ñu lu tax garab gi taxaw ñu ne la branche la kii ne la tronc bi la sëñ bi ne déedéet ren baa nga ci suuf ren baa ngi ci suuf loolu nag mooy sababu baatin bi nga xam ni mhm. moo waral tubaab bi mer moo waral euh, lu badrin euh, ñu bëgg seen daraja ainsi de suite sëñ bi ne loolu lépp nag dafa am fu mu jóge dafa am fu fan la jóge Mbàkke mu ne sababu xaybati ya anna laaha mhm. naka moom yàlla mhm. tabaaraka wa taala mhm. araada lu garaaw a ngi noonu Serigne Saliou yàlla jëm boppam yàlla ci jëmmi boppam araada moo am nammeel an anaala minhu jaa wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi mel na ni foofu Serigne Touba tudd na ñett ñetti mbir ñetti mbir ne ñett yi moo waral màggal gi. te yàllaa ko namoon. te yàllaa ko namoon. maanaam li waral màggal gi du sama nammuteef. Mhm. du seenu nammuteef. déedéet nammuteefuk yàlla. kon foofu la coow li njëkk a nekk. foofu la coow li njëkk a nekk. sëñ bi ne màggal gi. li ko waral mooy bëgg-bëggu yàlla. programme bu yàlla programme suñu borom la. du seen programme anna laaha araada. yàllaa programme. yàllaa programme. Mhm. ñu ne ko waa yàlla lu mu bëgg. mu ne yàlla dafa bëgg ñett. ñett la ma bëggal. ñett la bëgg. ñett nee na benn bi. Mhm. man sëñ Tuubaa la ko bëggal. nañ déglu de ñaareel bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi jullit ñëpp bokk mbindéef yi bokk mm-hmm. Mm-hmm. la ko yàlla bëggal mm-hmm. nee na ñetteel bi yàlla nga ko bëggal mbindéef yi maanaam ñett yi waral màggal gi dëgg benn bi sëñ tubaa ko moom yàllaa bëgg ñett waaw benn bi mu bëggal ko sëriñ tubaa benn bi sëñ tubaa la ko bëggal beneen bi rasulullah beneen bi yonent bi beneen bi xeet bi beneen bi xeet bi alors rëy na lu lu yàlla bëggal sëñ tubaa mu ne araada an anaala minhu jaaha yàlla moo bëgg ma am wàccuwaay ci moom moo xam ne fu ma tudde àdduna ne aw ma morom yàllaa ma nar a jox daraja joj jum joxul kenn kenn mësu koo am kenn mësu koo am xanaa loolu tax mu nakkiraal ko mhm. ndax nakkira ay xeet la waaye daa mel ne boobu nakkira nakkira nakkira bi ñu tuddee taxsiim waaw li ñu tuddee li tan xiimi wa taxsiim mhm. mooy mooy nakkiraal dara ngir ak màggam mhm. nga xam ne lu ko waay jàppe ëpp na loolu nu ko waay natte na loolu na loolu xam nga ahad googu nakira la mm-hmm. waaye nakira la goo xam mooy ahad daa wéet ci gépp fànni wéet ci bépp fànn xam waxul al ahad waaye dañ ne ahad mm-hmm. nakira la waaye nakiratun la moo tax sin waxul al jaaxa mm-hmm. waaye mu ni jaaxa jaaxa mooy nakiraal daraja ji ko koo nakiraal mooy daraja ju kenn mësta am xam ne la te kenn dootu ko am te kenn dootu ko am mu ne yàlla loolu la njëkk a bëgg fu ma tuddee ñu ne ahmadu amul morom kenn la loolu la nar nee na loolu la loolu mooy nammeelu yàlla bu njëkk bi nee na wan akuna xaadiman fi daw deuxième bi nee na deuxième bi nag mooy yàlla dafa bëgg rasulullahi sallallahu alayhi bëgg ko cofeel goo xam ne bëgg na ma liggéeyal ko liggéey boo xam ne mhm. bi maa wanaa an mislihi kullu xadim kenn mësu koo kenn mësu koo def ci lu jiitu te kenn dootu ko def ci lu mujj ba noppi fi daw mi liggéey bu sax lay doon liggéey bu sax lay doon diirum mhm. jamono mhm. nee na ñett ñaareel bi ñetteel bi nag ñetteel bi mooy yàlla moo xool xeet wi bëgg nu taxe xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sopp gi mu sopp yonent bi tax na mhm. mu bëggal leenu texe te bëgg koo jaare ki sëñ Tuubaa nee na ñett yëpp nag bi ko yàlla bëggee mhm. xool fu mu ko war a jaare mhm. mu ne loolu moo sabab màggal gi ma bëgg nag kon ñu taxaw nag ci bi ci ci jumla jooju ah loolu mat naa taxaw nag ndax màggal gi kat ndekete dimension bi du rek sëñ bi daa amoon lu mu bëgg ci yàlla yàlla ne ko li laa koy jaare du rek sëñ bi moo bëgg moo jug di wooteel yàlla ba màgg ba toll fenn fii déranger mm-hmm. nguur mm-hmm. nguur ne ko yow maag yow faaw ñu jàmmar la mm-hmm. du rek sëñ bi moo am lu mu bëggal murit yi ndekete màggal gi bëgguk yàlla la te ba ko yàlla yi bëgg sabab yi nuy tudd booba sàkkagul sax loolu ba loolu am amagul ndax fil asali la fil asali la sëñ Tuubaa wax wa sababul xaybatil mubaarakati anna allaha taala araada fil asali fil asali fil asali kon yàlla ca asal ca asal nga xam ne booba sàkkagul dara déedéet dara amagul forme bu nuy laal dëgg la lépp en potentialité sa xam-xamam la kon booba sàkkagul tubaab ba muy jàppe déedéet booba tubaab amagul sàkkagul ab dëkk ba mu cee dugg xalwa booba Sénégal amagul sàkkagul ñuy ruuxale déedéet sàkkagul benn mag booba sax daraje yi ñaa ahlu badrin diw amagul amagul ndax booba euh, kenn wàccagul kon yooyee avant muy am fekkoon na yàlla am nammeelu màggal gi waaw léegi iraadatu googu laa bëgg ñu njëkk cee taxaw mm-hmm. mooy am na laaha araada ndekete màggal gi yorul dimension mbindeef yi mm-hmm. ndax programme yàlla Ahmadou dina wàcc wàccandoog tubaab bi mhm. ak ya ca xew yépp war caa xew ba mu samp bis bu ñuy wax 18 safar ñu di ko màggal waaye fil ësël yi foofu laa bëgg nu taxaw wallaay wax nga dëgg xam nga tey mënoon na ñëw tey nag du ñu ëgsi ci ah, ah, ah, an anaa wu jaa kon daa xajagu ci xajagu ci saafi xan li xew mi saafi xan li xew mi mën mënagu la ñëw xaadiman fi daw mi nag xaadiman fi daw mi mënagu la ñëw kon tey lu ñuy waxtaani an na laaha araada kon nag téléspectateurs yi. Mhm. bayit bii nga xam ne moom la simbi moo waral màggal gi. Ah. mooy sababu xaybati an allaha araada araada an anaala minhu jaaha waan akuna saafihan li xaw mi waan akuna xaadiman fi daw mi mhm. loolay tem bi waaye gis nan ni du ci xaj du ci xaj kon tey dañuy jël sababu xaybati an allaha araada rek araada bu ñëwaatee jël an ana la minhu jaa bu ñëwaatee jël anaakoona saafihan li xew mi bu ñëwaatee jël anaakoona xaadiman fi daw mi kon nan dem ci araada insha allahu rabbi moo tax ma bëgg ñu taxaw ci araada mhm. ndax xam nga ne araada kat day lu rëy ci yàlla lu garaaw a ngoo ndax iradatu lay wax iradatul ilahiya te iradatul ilahiya lu foor la nam meelok sunu borom ndax alxuraan a ciy wax alxuraan a wax loolu Serigne Sall dama bëgg ñu daal ciy dugg ah, laaj Boubacar jërëjëf mhm. ah, ci thème bii nga xam ne tànnal nga ko te respectateur leeral yi mhm. ci bisub Serigne Touba bii mooy bii di gi wax nga dëgg sababu xaybati anna allah araada lu mat a taxaw la. araada iraadatu. iraadatu. Mhm. iraadatu ilaahiya mooy nammeelug suñu borom. nammeelug yàlla. alxuraan dana innama amruhu. iza araada shay'an. an yaquula lahu kun fa yakun. fa subhaana allasi. bi yadihi malakuutu kulli shay'in. wa mel na day bàkk boppam. daa daa bàkk boppam man yàlla ma yàlla. walaay ndeysaan ku dul man du yàlla. Mhm. Mhm. daa bokk ci li wane sama yàlla ji. ma amee iraadatu ci mbir. ci mbir. damay jëfandikoo sama kun fa yakun kun fa yakun bu ko defee amal ko mu am kon yàlla lu mu nam nekkal ko ba mu ko am nam mi rek la ko nekkal mhm. wut nag jamono ji muy feeñal nekk nga mhm. mhm. moo tax ku déggagul iradatul ilahiyya dëgg sax nam tëdd ci alxuraan mënoo xam dimension màggal gi nga dëgg moo tax léeg-léeg sax boo moytuwut mën nañ laa wax ci màggal gi dimension boo weddi ba mu jaaxal la dëgg la boo muytuwu ñu wax la dimension ci borom màggal gi goowet bi mhm. nekkate loolu baas bi koy waral mhm. mooy réere am na laa araada kon le màggal est inscrit dans le programme du divin du divin iraadatu yàlla ci biir nammeelu yàlla ci biir nammeelu mhm. yàlla nee na yàlla mooy aaya bi nga wax mooy aaya bi ba pare daa mel ni aaya bi da da cee pare bàkk boppam bàkk boppam fa subhaanallazi bi yadihi malakuutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un maa ngi bàkk sellug yàlla moomu nga xam moom day bi yadihi ca loxoom ya ca loxoom ya ca la nguur ca la ca la ca la moo moom lépp moom moom lépp moomee lu lépp lu am ak nguuru lépp lu am ma nga ca loxoom ya mhm. Mhm. moo tax iraadatu mhm. boo demee ci alxuraan da gis mu ni la yàlla lépp lu mu nam programme ko te bëgg mu am da koy njëkk a amal ci boppam nekkal ko ba mu nekk fa temps amul xam nga yàlla amul temps espace amu fa. yàlla amul heure amul waxtu. dëgg la lépp ci programme am pare na. Hmm. moo tax ñu koy tuddee alxudratu wal iraadatu. wal iraadatu. kon lu mu namm da koy amal ci kattanam. xudratu mooy kattan gi. iraadatu mooy nammeel gi iraadatu ba mu ko programmee rek. la koy dugal ci alxadaa u. alxadaa u xadaa u mooy lan. xadaa u mooy lu yàlla atte ba noppi. Hmm. ca biir xam-xamam ba en potentialité. dëgg la. te wutalugu ko ay contexte ak forme bu mu feeñee ci xadaru. Hmm. alxadaa u wal xadaru. ba di ko wàccee fi ñu xamee. Hmm. fi temps am fi espace am fi heure am. ndax Sëñ nee na amal na programme màggal gi ca ësal. ca ësal te boo xoolee fii nga xam ne mooy xaalamul asbaab nag moom dañ naan la 1900 nangam lañ ko jàpp 95 yóbbu def lii def laa. loolu mooy ësal. concept màggal gi pare na. concept màggal gi pare na. yàlla defar na concept bi ba mu rafet. ba plan bi leer. di xaar àdduna ubbi. Mm-hmm. ba treize treize mille trois cent treize. ci dix-huit safar rek. mu mm-hmm. dawal film bi mu dawal film bi. waaye concept bi moom pare woon. concept bi moom pare na ba noppi. xanaa loolu dafa dafa mel ni euh, usine bi defar oto. defar oto war koo génne deux mille vingt cinq. deux mille vingt cinq nga xam ne testé na oto bi ci tali yeeg yëpp. di xaar 2025 incha allah di xaar 2025 incha allah rek. Mhm. ñu ni nag génn. wallaay ndeysaan. borom nag loolu pare woon na ko ci màggal gi ci alxadaa u. Mhm. xadaa u alxuraan dafa wax ne huwa allazi yuhyi wa yumiit. Mhm. fa isaa xadaa amran. isaa xadaa amran fa innamaa yaqulu lahu kun fa yakun dëgg la. yàlla mi nga ne mooy dundale mooy reye. ni ngeen xam ne saa yu bëggee àtte mbir mhm. dana ko àtte ba amal ko ca kunam nga mhm. ba mu pare mhm. te du ngeen ci jotagun dëgg la ñu ne loolu mooy la mu ne pare na ko ci xam-xamam ndax suñ borom xam-xamam dara da ko béttul li taxlamu anna allaha ala kulli shay'in qadir in anna waa qad ahata bi kulli shay'in hilma bi kulli shay'in hilma ak wasiha kulli shay'in hilma inna allaha bi kulli shay'in alim kon xam-xamam yàlla ba dara béttu ko léegi xam-xamam boobu nag lan nar a àtte nar koo amal amal na ko ci biir xam-xamam ba amal ko ca biir coobareem ja mm-hmm. ba bind ko ca dogalam ya mm-hmm. nga xam ne bind na ko fa mu affiché dogal ya yamhu allahu ma yashaa'u wa yusabbitu wa indahu ummul kitab te xaddaa u moomu am ñaari xaaj ci benn aaya boobu xam nga alxuraan dana wa in min shay'in mm-hmm. illaa hindana qadaa'inuhu wa ma moo leeral xaddaa u ak xadaa ak qadr wa in min mbir mu yàlla nam mu am pare na ci ba denc ko ci màng siinu xam-xamam dëgg la léegi wa maa nunazziluhu illaa bi qadarin ma'luum léegi nag procédure la processus la. processus la mooy buñ ca tollee rek yàlla da koy dogal. da koy da koy dogal. loolu mooy décret ak l' application du décret. du décret. mooy décrété mm-hmm. waaye décret bi nag. fin d' année lañ koy appliqué. fin d' année lañ koy appliqué wala telle telle période lañ koy appliqué. lañ koy appliqué kon décret bi moom pare na. pare na fi toll nii ñu ne ah président kat moom décrété na fi toll nii prix waaye concept bi moom noppi na. Mm-hmm. Mm-hmm. te Sëñ Tuubaa nee na suñu borom fa muy décrété mbir ya. waaw ñaari wet la wet goo xam ni dana fa bind dogal boo xam ni da koy lëkkaleeg mën a far mhm. mën naa sax mën naa far mhm. moom la ñu tuddee alxadaawul muhallax mhm. foofu waxaasaa yumha wa yusbit bi xasabil asbaabi lati yataxallaqu biha ci misaal yàlla ne diwkat bind naa ko mu gàttu fan waaye mën naa guddit fan mooy gàttoon naw fan waaye yonente bi ne boo saraxee saw fan gudd kon bindoon nañ ci dogale nga war a gàttu fan waaye foofa mën nañ koo far dëgg la mooy ci sabab soo yaa ngi dégg moo xam da ngaa saraxe moo xam da ngaa def lu baax yonente bi ne faj leen seeni feebar ci lan ci saraxe ci nga xam ni kon loola mën naa far dogal buñ biddoon loolu ma yem yamhu Allahu ma yashaa wa yusabbit waaye alxadaa ul mubram nag mhm. mooy waxinda ko umul kitaab dëgg la mooy wet ga nga xam ne ummul kutub la mhm. yàlla képp fay liire nee na foofa nag mooy fa nga xam ni mhm. alxadaru al azali al maktubu laa yatabaddalu wala yataxayaru définition bii nag Ibn Hajar moo ko définir. dëgg la alxaafis wax wax xam-xam bu mag ba. nga xam ne moo jox moo jox dimension boobu. dogal yàlla dogal yàlla. dëgg la ca atteem ba ci lu mu pare. Mm-hmm. mu ne nag foofu bu fa bindee dogalam dootu ko far dootu ko changé. Mm-hmm. Sëriñ Tubaa nag nee na hmm. fa nga xam ne duñ fa fare dogal hmm. ndax fee malaaka dafay liire hmm. fa ñuy fare dogal malaaka dafay liire dëgg la moo tax ñu tudde ko suuful malaayikati fii suufi mukaramatin marfuhatin mutahara bi ay di safaratin kiraamin barara nga xam ne foofa malaaka dafay liire mën naa far mën naa bañ a far waaye fa nga xam ne luñ fa bind duñ ko far Sëriñ Tubaa nee na programme mu màggal foofa la ko yàlla bind tuddu far wallaay wax nga dëgg moo tax mu ne falaahi bi fadlillaahi fii lawhihi jara dëgg la bi xayrim mihaa in duuna makirin wala xawfi. dëgg la foofee la bind kataba rabbi anni yal abdul xadim lahu walin nabi. dëgg la wa xidmati taddoom. wallaay ndeysaan. mu al al ay kaasifil kurabi raafihu rutab yaaman bihi kaw nii xadimuhu kat. dëgg la xam nga kon foofu kenn du ko far. kenn du ko far saxaadati bi xayri maxwin kutibat. dëgg la wa kaw nii yal abdul xadim qasabat. dëgg la waaye alaaj Boubacar. Mm-hmm. xaddaaw moom nag alxuraan dafa leeral. Mm-hmm. ci explication bu leer ci lu yàlla pare ba noppi. comme décret. waaw te. appliqué guñ décret bi. guñ ko dëgg la. alxuraan indi na ci misaal yu bari. ci mu gën a jege ki koy diglu. wax nga dëgg joxe exemple. exemple ndax boo nee ko màggal gi yàlla pare woon na. ba ah. programme waaw di xaar waxtu heure temps pour feeñal ko. Mm-hmm. waaye amoon na foofee. dëgg dëgg la mën na koo jaaxal loolu nu mu a nekk. waaw alxuraan leer la ne suñu borom am na mbir yooyu préparé na ko. Mm-hmm. ba noppi ca ba bind ko ba lépp pare. Mm-hmm. fa nga xam ne sabab amu fa temps amu fa mm-hmm. di xaar nag fii ci noonu nga xam dañuy dund ci temps mm-hmm. mënuñoo indiwaat démb mm-hmm. mënuñoo pousse tey mënuñu xëcc suba kon ñu dañoo tënk dëgg la mu wutal ñu nag waxtu wu ko fi indi mhm. loolu alxuraan misaal na ko ba tàyyi wallaay wax nga dëgg nañ xool Seydina Xiisa ak Seydatuna Mariam ak Seydatuna Mariam wallaay wax nga dëgg alxuraan leeral na ko ci ndax xam nga moo xanaa moo loolu mooy waskul fil kitaabi Mariam isin tabasat min ahliha makaanan sharqiya fattaqasat min dunihim hijaaban fa arsalna ilayha ruuxana fa tamassala laha basaran sawiyan qaalat tan yakunu li yàlla yaxayinu wali najxalahu ayatan linnaasi wa rahmatan wa kaana minna wa kaana amran maqdiyan na amran maqdiyan amran maqdiyan mbir mun àtte maqdiya xam nga mu ngi jóge ci xaddaaw mu ngi jóge ci xaddaaw mooy loo xam ne yàlla préparé na ko hmm. liggéey na ko ba noppi na ca waaye hmm. feeñale gu ko wax nga dëgg xam nga aaya boobu nu jàng hmm. sayidatuna mariama sayidna jibril la ñoo taxaw ci kanamam dëgg la sama borom moom la yónni waaw wallaay moo lum la yónni yàlla na ma yàlla musal ci yaw su fekkee yaay kiy karaate yaay taq yi miy karaate mii di kar nit ñi mun ko ah. du ma taq yi di wala bu fekkee eh, ku ragal yàlla ragal yàlla yàlla na ma yàlla musal ci yow yàlla musal ci yow mun ko mutumaa muslu mhm. man du ma bandi mhm. sa ndawul borom laa innama ana rasulu ki li ahaba laki xulaaman xulaaman zakkiya mhm. moo tax bu mu ne ko xaalat inni ahuusu bi rahmaani minka in kunta taqiya mhm. dane ko xaala innama ana rasulu rabbi foofu jibril mooy tontu mariama li ahaba laki wala man zakiya wala man zakiya mhm. moo man jurumaa muslu ndax man sa ndawal borom la moo xam ne moo ko yónni damaa ñëw nag ngir eh, jox si la doom mu ne ko moo na may amee doom te mosumaa jox soog góor wallaay mu ne ko ci yéen mindee fi la jafe mhm. waaye ak a yomb sa borom di wax ak moom di wax moom ba xel ma dal ñu maanaam jibril di ko di ko di ko wàcce daal di ko wàcce naan ko bul tiit defal garaawut nangam nangam. mari Mariama bëgg daal de de loolu moom mënta ne. ndax xel mi dalul daal. wallaay ndeysaan jibril ba coow la tàmbalee bari. Uh-huh. mu ne ko maa ngi lay yëgal ni. la uh-huh. nga yëg ne wakaana amran maqdiyan. amran maqdiyan. mbir mi sax yàlla defar na ko ba pare. waaw kon damaa ñëw rek ngir informer la. waaw waaye loolu moom. Uh-huh. doon na mbir mu àtte xaddaawu pare na ci. dëgg la moo tax sax. waxuma la ñàkk laa may may gi doom waaye def na ko sax sans. wallaay man xoolaa man doom ju sax lay doon. <laughs> nga xam ne dis loolu sa est indiscutable. c' est indiscutable. yàlla décrété na ko ba pare. wallaay loo xam ne la pare na. waaw yow daal dañ lay informer ci rek. Mm-hmm. yow amoo choix. déedéet am na ba pare. kon xam kon nee na ko mbir mu am la ba noppi. dëgg la fan la am. waaw xanaa ca ësël. ca ësël dëgg la. waaye jamono ji ñuy wax ma Mariama amagul fii. amagul fii ndax nee na bi mu daanee loolu rek fa xamalatu. Mm-hmm. fan tabasat. bihi makaanan. mittu xabla hëza wa kuntu nisyan mansiya fanaadeha min taxtiha allah tahsani xad jaxala rabbuki taxtaki sariya wa huzzi ilayki bi gishin naqalati tasaqat alayki rutaban janiya fa kulli washrabi wa qarri haynan fa imma tarayinna min albashari ahadan fa xuuli inni nazartu lirrahmani sawman falanu ukallimal yawma insiya fa atat Mhm. bihi qawmaha tahmiluhu qaalu ya maryamu laqad jiti shay'an fariya ya ukhta haruna ma kana abuki imra'an sawiyyan wa ma kanat ummuki baqiya fa asarat ilayhi qaalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya wallahi ndeysaan qaala inni abdullahi atini alkitab wa jahalani nabiyya wa jahalani mubarakan aynama kuntu wa awsini bis salati wa zakati ma dumtu qayya wa barran bi walidati wa lam yajhalni jabbaran shaqiyya wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma as'adu hayya wallahi salik isa ibn maryam wallahi loolu de mooy ca surtout maryam gis nga li tàmbalee fa ba ci saal Isa na Mariam mooy réalisation film bi la fii ci àddina ah, mooy fi ñuy tegee nag mm, film bi nga xam ni pare woon na ba scénario scénario <laughs> ñoo ngi ci iraadatu <laughs> iraadatu anna laaha araada suñ tubaab nee na màggal gii mhm. ñu jëm yàlla nañ ci yàlla yóbbu wallaay nee du tubaab bi moo ko créé du daraja ju ma bëggoon rek loolu ci mhm. àddina la mhm. waaye màggal gi programme ba jiitu na loolu na loolu lépp nee na anna laaha araada fil azali fil azali yàlla moon na moon laata mbindee fi di juddu mhm. la yàlla bëgg màggal gi am wallaahi nee na bi ñu wàccee ci kaw suuf nag la yàlla créé contexte buy tax màggal gi am loolu la ñuy leeral ci xam-xam iraadatu yàlla nag xam nga ni dafa am yu ci yu ci ànd mhm. mooy euh, xudratu mhm. ak iraadatu ñoo ànd mhm. bu yàlla nam mee mbir kàttanam la koy dogal wallaahi su dogalee mbir nag ah, mbir moo mii mën na koo dogal ba conceptualiser ko ba mu noppi yàlla ranger ko ci tiroir wi di xaar àddina am di xaar àddina am sëñ saal def naa looloo yëfi looloo wér exemple bu leer bi mooy Sayyidatuna Mariama bi mu paree ci Isa ba def ko ci taabal bi wallaahi ndeysaan di xaar nag waxtu yu jot mu indil ko mu jox ko ko moo tax bi mu ne ja ñu ne ko lu xew mu ne laaj leen ko. mu ne laaj leen ko mu tontu. wallaay wax nga dëgg. Ah, kon loolu yàlla réalisé noonu. waaw amran naqdiyan mu pare woon. amran naqdiyan wane na ni kon kon yëf yi pare woon. defe naa am na ko sax fële ci suur Aali Imraan leer laan na ko fa. wallaay ndeysaan nga mooy bi mu naan ko yaa Mariam inna allah astafiki. wattaharaki wastafiki. ala nisa il alamin yaa Mariam inna allah bashiruki. bi kalimatin. min ismul masihu isa ibnu Mariam. wa jeexan fi dunya. wallaay ndeysaan wal axirati wa min al muqarrabin. Mm-hmm. ne ko wa yukallimu naasa fil mahdi wa kahlan wa min as salihin. wallaay xaalat rabbi anna yakuni lii waladun. walam yamsasni basarun wala maku baqiya foofu moo am xaala kadalika illaahu uh-huh. yaxluqu maa yashaa yaxluqu maa yashaa isaa xadaa amran isaa xadaa amran fa innamaa yaqulu lahu kun fa yakun kon isaa xadaa amran ñëwaat na ñëwaat na ñaari yoon ah nga xam ne kon wan na ko ni ko yàlla atte na loolu ba pare dëgg la lii moom moom moom lu yàlla dogal la ba pare mais alaaji Boubacar alxuraan lu wax huwa allati xadaxakum mm-hmm. suma xadaa ajalan wa ajalu musamma mm-hmm. hindahu suma anta tamtaroon mm-hmm. kenn ku ne ci yéen maa la sàkk atteel naa la digub juddu ak digub faatu. ak digub faatu te faatu àggaguñ ca nag. kën a ci nun kon bis ba ngay faatu. Mhm. yàlla pare na ko ba denc ko ci. te jox nañ ko sa waay nag. sa waay yor na ko ma yi ah, na ko malakal noot moom kon pare na ci moom programme taw bi sax moom yor na xam na waxtu wu jël <laughs> siraat nag uh-huh. lu ci alxuraan nag wa in minkum illaa waariduhaa kaana alaa rabbika hatman ah. maqdiyan maqdiyan atte naa ko ba atte naa ko ba pare yéen ñëpp fay xam nga loolu moo tax yéen bi daana toog ba yàgg di di di muñ. di muñ ñu ne ko lan la mu ne damaa jaxal ak bis penc. bis penc di xool yàlla lay àtte. léeg-léeg mu nettali ci xissa bu xorom. wallaay nit ñi daal di ree. wallaay nga xam ne moom yàlla won na ko film bi ni muy demee ba mu tàmm ba mu taxaw di ree. parce que fa yàlla. Mm-hmm. lépp pare na fa. dëgg la amul temps amul espace. amul espace Serigne Touba nee na. Mm-hmm. màggal gii programme am. Mm-hmm. yàlla noppi woon na ci ca ësal. ngir nammal ma ñett yi nga wax. ñett yi. jox ma daraja ju kenn mës sa am wallaay ndeysaan jox rasul lay ci man daraja ju kenn mës sa am mooy xaddiimu rasul waaye jox xeet wi ci man lu leen xettali lu leen xettali tey ëllëg loola ba mu ko nammee la programme màggal gi ci ësël daal di suyee film bi ca moom ba mu noppi ba mu noppi mu doog koo feeñal fii nag ci ay circonstances ak contexte muy xaar nit ñi wàcc nag ngir programme màggal gi déroulé wu mu mel ne laax xam nga loolu Euh, day fekk si li Serigne Touba bind. Mhm. ndax day day jooyal yàlla cantug màggal gi. cantug màggal gi daal di koy dugal ci diiwaan boo xam ne da koo tuddee diiwaanu lëhul mahfous. lawhul mahfous. nga xam ni bi mu bindee minal lawxil mahfous yi. waaw waaye li ci sëñ bi teg moo yéeme. mënoon mhm. na ni rek minal lawxil mahfous yi. mooy alluwa ba yàlla denc dogal yi. Mhm. waaye dañuy bilaa maxwin abadan. mooy li nga doon wax léegi. mooy wet gën ko dul fare. mooy bilaa maxwin wet gi ko yàlla bind nag. mooy wet gi nga xam ne lu mu fa bind du ko far. du ko far mukk ndax lawul mahfuus am ñaari wet. Mm-hmm. wet goo xam ne lu fa yàlla bind. Mm-hmm. àdduna mën naa dox ba mu far ko. Mm-hmm. mooy euh, yàlla bind ne diw kuy gàtt fan la. waaw nga xëy teral jirim. yàlla bëgg yokk saw fan. Ah, nañ ko yokkal wala nga xëy yàlla dogaloon ni diw mii dana am ndog-ndog bu metti ci liggéeyam. wala ci aw yoonam. nga xëy saraxe. nga def lu baax. sarax boo xam ni da ciy jubloo rek sarax. te yàlla tax te yàlla tax. Mhm. waxuma sarax yoo xam nag moom da nga koy. calculer def ci fii def waxuma loolu. Mhm. waaye sarax boo xam da koy def rek te yàlla tax. yàlla rek ca sarax ba ba defal la yiw wi muy. Mhm. ndog-ndog bi nga waroon a am dindil naa la ko. loolu tax sarax baax. moo tax nga dégg borom xam naa la sarax dana fomm deegu ñaaw. dana yokk euh, fan wu naroon a gàtt. ainsi de suite am nattu. léegi nag wet googu moo tax yàlla mën a far dogal yamxullaahu maa yasha wa innahu ummul kitaab mhm. am na geneen wet nag goo xam ne lu fa yàlla bind moom tifaaxan la mhm. sëñ Tuubaa na màggal gi nag mhm. ca wet googu la ko yàlla bind xanaa moo tax mu ne wa innahu fa moom yàlla nag ummul kitaab ummul kitaab fandul fare fa la nekk fandul fare fa la nekk moom yàlla sëñ bi nii lahu xitaab yi mm-hmm. baax dama jaaxattu wallaahi mu bàyyi xan mm-hmm. wa baax dama xaaxattu mm-hmm. nee na dama lahu xitaab yi dama waqante ak yow ak moom wallaahi ndeysaan baax dama jaaxattu nee na ginnaaw bi nga xamee ni jaayante na ak moom mu bàyyi xan mag ma jébbalu ci moom jaayante ak moom nee bi loolu yëpp dajee may may dox ci yàlla nag ba am may yooyu sëñ Tuubaa nee na yàlla ci boppam moo ma koy may nee na maa foo xam nag yàlla dani ma yii fi ne nag duñ lay may du du yoo xam ne da ngay liggéey ba am ko. déedéet nee na yii nag moom kenn du ko jënd. Mm-hmm. ndax amul njëg. Mm-hmm. yàllaa la koy baaxee. coobareem la moo tax mu ne war xaadal yi. Mm-hmm. maa duuna hoo. ijtihaadu al ijtihaadu. yaa ngi dégg wax ji nee na na ma may ya nga xam ni. amul njëg. amul njëkk kenn du ko jënd bañ jox la effort du ko sëñ Tuubaa nag nee na foofa mboolem leer yàlla yi daa daje mhm. moo tax mu ne lam yan xu nii sëhuun wallaahi wala xtiraaru lin xaadatil anwaaru mhm. wal asraaru wal asraaru fi ma toll di wax ak yéen lam yan xu nii sëhuun njuumte mhm. du ma jege mukk déedéet yàlla yóbbu na ma ci dimension mucc ci njuumte wala xtiraaru nag nee ak waru du ma waru mukk jàpp ni mbir mi nii la demee te demeewul noonu nee yàlla muccal na ma ci mm-hmm. lim xaadatil anwaaru mboolem leer yàlla yi mm-hmm. nee na agsi nanu agsi nanu waaye wal asraaru ak secret yàlla yi agsi nanu nee na nag laa taxaw samp cantuk màggal gi foofu laa ko sante moo tax mu ne wajjahtu rabbiya mm-hmm. bi shukrin yabqa mhm. baqaau mulkihi mhm. wa xustu sabqa mhm. ma nga ca diiwaan lawhul mahfuus bayit yi ma lay wax yëpp sëñ Tuubaa nee na yàlla nga ko bind ca lawhul mahfuus te bilaa max yu dootu ko fare fan ko dul fare fan ko dul fare mu ne ma sampal Sëriñ Saliou kon nga gisee ci ne kon loolu day firi sababu xaybatiya anna allah anna araada kon mhm. yàlla ba mu ko nammee rek mhm. booba la ko amal ca moom mhm. ca ësal waaye ci àddina mu fi doog a xew waaye alaaj Boubacar yàlla saa yu nammee dara ba atte ko ci boppam ba noppi suñ demee ba mu war koo wutal ay contexte yu mu feeñee ci kanamu àddina ci xaalamul asbaab day tànn nag day am ku muy tànn day am ku mu tànn dëgg la kooku muy tànn kooku moo dul doon gone kenn ndax film bu toll ne yàlla yàlla du ko séyaloo acteur bu mu fonkul wallaay wax nga dëgg wax nga dëgg yàlla séy film boo xam ne mooy seen seen kii bi moo ko bind ni ko waxatee. Euh, concept bi moo def moo def moo def moo def scénario bi. ah bi. te Serigne Saliou balaa ngaa dugg foofu. Mhm. li ñuy wax ci màggal gi. Mhm. nga xam ne dimension màggal gi. Mhm. day dafa dafa dépassé dimension mbindeef yi. dépassé na ko. loolu boo ko xasee comprendre ni màggal gi dafa dugg ci programme yàlla. dugg ci iradatul ilaahiya. ci ngay comprendre lu tax Serigne Touba naan la. wajhal masiir yi. fawqa hajjin wa jihaad. fil ajri fil ajri wal yumni. wa fii kulli rasaad wa fii kulli rasaad. ak jaxal tasiir yi fawqa hajjin wa jihaad waxee na ko nu nekk. wallaahi Dieu a élevé le jour du 18 safar. au-delà du du pèlerinage. au-delà de la guerre sainte. et au-delà du pèlerinage mineur. yàlla def na sama tukki bii. ci wàllu yiw. ak ci wàllu njub ak ci wàllu yool. nee na képp ku ci def ginaar ba ci gëléem. nee na yàlla dina la ci bindal yiw woo xam ne kawe na yiwug xare wallaahi kawe na yiwug umra mhm. waaye kawe na yiwug aj makka aj makka wal xajjul mabruuru mhm. laysa lahu jazaun ilal janna wallaahi suñ borom ah, yent bi nee na aj gu nangu dara du ko wecc lu dul ajjana mhm. jihaat nag moom yàlla waxe na ko nu ne mm-hmm. wa jaahidu fillahi xaqa jihadihi mm-hmm. huwa tabaakum mm-hmm. wa jaxla aleykum fi diini min xaraji millata abikum ibrahima huwa sammakum muslimina min qablu wa fi hada et lutter a et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion celle de votre père Abraham lui qui vous a euh, choisi et qui vous a nommé musulman min qablu avant la descente du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam wallaahi jihaad leen ci yoonu yàlla nga xam ne jihaad ñëw na yoon yu bare bare sëñ Saliou yooyu yëpp nga dajale ko. Mm-hmm. suñ tubaab la yooyu yiw yu rëy ñoo ci nekk. yu rëy rëy. yu njub yu rëy ci nekk. Mm-hmm. waaye képp 18 safar ëgsi. Mm-hmm. mu jël ginaar ba ci gëlëm. nee na santale ma ko yàlla. yàlla may na ko yiw woo xam ne. dajale na ñett yooyu yëpp nag. waaye faw xam ak. faw xam kawe na leen xam nga kenn mënu ko kenn mënu ko comprendre. déedéet waaye soo ko mënta comprendre. da ngay déglu nag développement bi. mooy ndekete màggal gi. programme bi aj màkk dugg mhm. programme bi jihaad dugg mhm. programme bi omra dugg ki mhm. xewal programme boobu muy yàlla moo xewal moo xewal programme màggal ki moo tax suñ tubaane sababu xaybati ya anna laaha araada loolu laa bëgg a askuruhu sukra muhibbin lam yura xattu siwaahu wa siwaahu lan boo gisee mu ne cant la goog mësta xew te dootul xew te xew li ko waral mooy ki ko xewal ki ko xewal muy yàlla waaye li may dolli ci lii nga wax muy li Sëñ màggal gi yàlla yëkkati na yool bi maam kawe aj gun nangu umra gu nangu jihaad gu nangu ak bépp yiwu nangu faneen mm-hmm. Mm-hmm. te du màggal gi mm-hmm. yiwu màggal gi ëpp na ko bu ko dégg mukk ba defee ne dani la bul aji bul aji wala daa ëpp aj waxul moo ëpp aj de wala daa ëpp umra wala nanga de dani yool bi yool tiyaaba ji yàllay fay aj gu nangu yàlla may fay tiyaaba ubbi na ca màngi siinu tiyaaba tibb bu ëpp la may fay ci aj di ko fay ci sama bis bii loolu nag mbir mbir mën na koo gën ba nag mu am lu mu amut dëgg ci misaal màkka mm. ak Madina ñoo gën ci dëkk yi. foofu sax ba xam nga ne xarafa jëm boppam. Hmm. li ko Makka yi gën gën ak Madina am na lu Makka ak Madina amul. Hmm. yonent bi dañu alxaju. xarafa fi ne ku aji loo yàgg yàgg Makka. ak hmm. loo yàgg yàgg Madina boo demul arafa sax aji nangu. mënoo aji sax. xanaa kon arafa am na lu Makka ak Madina loolu moo wér te tiwul Makka Madina gën ko. dëgg la kon ci wàllu yiw la kon wàllu yiw dafa mel xam ne <laughs> daanaka ci wàllu ci wàllu rendement maanaam ñoo ñoo ko bokk. ñoo ak ki nga xam ne daa tiim ceeb lekk ko kii ñu perfusé ko. waaw ndax mënta lekk. Mm-hmm. daanaka mm-hmm. la bu lekk ndax lii farata la. aj gi comme farata la. Mm-hmm. def gi farata la. waaye yiw gi nag la sëriñ bi wax. moo tax mu ne fil ajar yi ci wàllu payoor. ci wàllu payoor. wala maa ngi jël mbir mu ma neex fulal ko yiw wu ma neex soob na yàlla mhm. bi mu programme lee boppam màggal gii mhm. mu def ci yiw wow mhm. newul ci lu dul màggal newul ci yooyu loolu dafa mat a xam loolu mat ma leeral kon yaa ngi woon ci léegi nag bi yàlla nammee loola ba noppi waaw yàlla bu nammee mbir ba tëral ko ba noppi ba ko amal day tànn nag acteur bi nga xam ne moom lay choisir mu defal ko ko wallaay yoon nga dëgg ndax bul fàtte ni mboolem mission yi yàlla indi ci àddina te muy mission yonente yeeg ñi leen di doon ñëpp mm. sunu borom programme na ko programme acteurs yi koy def mm-hmm. ci ak tànnam te ñëwunu fii mm-hmm. moo tax alxuraan di wax allahu yastafi mm-hmm. min al malaikati rusulan wa min annaasi inna laa samiun basir xam nga loolu moo indi it mu naan xullil amdu lillahi wa salaamun ala ibadihi lasina stafa allahu xayrun amma tusrikun mooy yàlla mooy tànn ci nit ñi ña ko soob di tànn ci malaaka yi ña ko soob di leen defal di leen defloo mission. dëgg la inna allaha safa hmm, lakum aadama hmm. wa nuuhan hmm. wa aala ibrahima wa aala himrana xalal xaalamin surriyatan baadoha min baadi walla samin alim kon yàlla mooy tànn missionnaire ku ko neex waaye yàlla lu tànn nag n'importe n'importe qui Sëriñ Tubaa nag lu tax yàlla soo asir ko ñu ci mën a jàngale ci mission bu toll nii nga xam ne yàllaa ko nammal boppam dëgg la bëgg programme màggal gi am mu tànn nag Serigne Touba. Mhm. ngir mu doon acteur bi nga xam ne mooy ànd ak tubaab bi di mbëkkantee ko jug. Mhm. ba sabab lu waral bisu bis bi safar am ci àddina. Mhm. foofu laa bëggoon nga ñëw. jërëjëf Serigne Saliou ci setantal bu am solo boobu ak laaj bu am solo boobu ndax xam nga ni lii ñu jot a introduire. nga indi ko ci màggal gi dimension bu mu am. nga xam ne ci ësëliya la. laata benn mi def di judd. yàlla programme ci lu mu bëggal sëñ Touba. programme ci lu mu bëggal yonent bi mhm. programme ci mhm. ba sëñ Tuubaa wax ko mhm. loolu mu war koo amal kamuy choisir ngir mu jouer film boobu wallaahi kooku du doon n'importe qui déedéet kon kooku faw mu am diggante ak yàlla diggante ak yàlla loolu daa mel ni nag maa laaj kon fi mu ne diggante Serigne Touba ak yàlla ak yàlla ndax ñoom ñaar comme déeyoo nañu waaw ba am lu ñu ci ësël ba Serigne Touba war a wàcc jouer ko kon amoon amoon nañ diggante kon diggante bi du fii kon diggante bi du fii léegi diggante boobu nag suñ ci waree waxtaan tey te sëñ Tuubaa doon ko bari wet mm-hmm. kon faaw ñu xaw a dugg ni ci wet yi tuuti. Mhm. ndax xam nga ni yàlla comme nar a joué loo mission wax nga ko. Mhm. ni mu tànn yonent yi. Mhm. looloo tax yonent bi tudd al Moustapha. kun tànn ki kun tànn ki. su ne Moustapha. li muy dox. bokkul ak mujtaba. déedéet bokkunu bokkul ak muntaxa. loolu bokkul. waaye waaye bokkul ba léegi. ak rasulu ak rasulu. bokkut ak nabiyu ak nabiyu. ci li muy dox. bokkul bi ñu ko. gis nga même tànn yonent bi. ngir joué loo ko mission ci kaw suuf. mu doon ah, rahmatan lil alamin mu'minin wallaahi doon kaafatal lin naasi mhm. keneen ku mu tànn mhm. dalay dalay beral ay jikko ay jikko gisoo bi mu tànnee Mariama mhm. bëgg a feeñal ci moom leeruk Isa Isa war a judd ci jamono am nday te du am bàyyi mhm. yàlla bëgg cee wane kéemaanam gu rëy ci àddina mhm. Isaa war a toog ci berceau mhm. di wax wax joo xam ni waxambaane bi gën a mag mënu koo wax kàllaama yu leer loolu xam nga day mission bu rëy yàlla ne a joué ah, noonu ma tànne ñooñu noonu laa tànne Mariama ngir mission bi ma ko bëgg a maa ngi ci yàlla ak dogal bu mu dogal. te mhm. atteegu ko. ki mu mhm. koy joué loo. ki mu koy joué loo moo tax mu ne ko yaa Maryamu. bala ngaa ñëw daal kon ci mission bi Serigne Touba nga ñëw ci ki def mission bi. ki def mission bi muy Serigne Touba. mooy yaa Maryamu. Mhm. ñu ne waa mu a inna allaha. astafiki yàlla dalaa tànn. bi mu la tànnee ba pare. wa tëxëre wa ki. mooy dalaa sellal laabal la. kon gis nga ba léegi programme yàlla. dalaa waajal kon <laughs> ndax yàlla mooy choisir acteur bi. waaye yemu ci de mhm. wësta feeki mu tànnat la mhm. ala nisaay laalamiin yàlla moo xool sa julli sa jigéeni jamono yëpp mhm. jigéeni addina yëpp mu seppi la yow Mariama tànn la inna yu yubashiru ki a ñëw waaw maam bi mu la naree suyuloo rôle bu toll ni uh-huh. jaarale ci yow ku am nday te du am baay ah. te mu war a doon ayatan minna ayatan minna boobaa nag dalay waajal dalay waajal yow Mariama kon gis nga ni yàlla ku muy tànn dalay waajal la Sëñ Tuubaa bi ko yàlla bëggee jouer le mission bi lim njëkk a def mooy tànn ko waajal ko. fii nuy waxtaanee Sëñ Tuubaa nag. waxtu wi day wet goo xam ne nag. Mm-hmm. ah wetam nag diggam ak yàlla. kon Sëñ Tuubaa daa bari wet. Sëñ Tuubaa dafa bari wet. sañ mm-hmm. Saliou. Mm-hmm. Ah, looloo tax sax murit yi tous les murites. ne parlent pas le même langage. xanaa xam mën naa fee teg juróomi murit boo xam ne ku nekk ak Sëñ Tuubaa. te ñooy bokkum Sëñ Tuubaa te ñooy bokkum Sëñ Tuubaa léeg-léeg ñu waxtaan ba tegantey dënd ci Sëñ Tuubaa te kenn ku nekk ka ngay wax Sëñ Tuubaa la te bokk ak sa borom ka ngay wax waaye yéen bokk ka ngeen bokkoo leen ki ngeen di wax. te yéen a bokk ngeen di wax te yéen a bokk ki ngeen di wax. lool loolu loolu moo ko waral. tey jii. Mm-hmm. ñëwaguñu ci Cheikh Ahmad Bamba.

dal Touba. Mhm. ainsi de suite. naan ah, Ibnu Habiballah moomu. Mhm. Mhm. mooy ki nga xam ne moo nekkoon. Euh, moom lañ denc fii. ci ci ci Touba. ci Touba nga xam day am bisu juddu. am bisu faatu am ku ko jur. am ñu ngi nga xam ne Ahmadou Bamba moom moo nekkoon biir kër maam Aswala maamam. wallaay di bind si ndiidi di bind si ndiidi. koo koy koo koy Ahmadou Bamba moomu. Mm-hmm. moo doon wax yàlla bis bu may faatu. Mm-hmm. sama ruu gi. bu mm-hmm. taqali ko sama jëmm ji. yàlla na nga ko def na woyof bu metti. waaw ah, waaw na nga ko yaafal de. wallaay ndeysaan. wallaay nag ma fa dimbali. nag ma fa dimbali. sama sama yaram yi bu nga ko dugalee ci suuf si. Ah. nga la yàlla na nga wattu yaram bi mhm. ba bu mu yàqu dëgg la ndeysaan mel ni lënd mu bàmmeel sax day ñaan yàlla mu musal ko ci waaw day da yàlla nag ma ña nag mu musal ci lënd may bàmmeel wallahi nag mu musal ci déegu metti wallahi wax fir li waalidayya mhm. wax fir mhm. wa jumlati siqaar yaa samia yaa samia wan fas li yàlla gis ma waaw laa tubliyanhu dëhra yàlla wallahi kon ahmadou bamba wax loolu wan fas li yàlla gis ma xaysur ah, ruuhu faaraxani sama yaram bi bu taqale ko sama ah. ma wàllu waaye fil xabri nag ci biir bàmmeel ah, laa tubli yenn xut daxara bu ma fa bu ma fa nattu bu ma fa nattu mbugalum bàmmeel ak lëna lëna yaag yooyu ah, gaa yi nettali kookoy Ahmadou Bamba kookoy Ahmadou Bamba ndax bu fekk Ahmadou Bamba moom moom wóoruta yaakaar ci bàmmeel déedéet kooku bokkul ak yow sëñ Tuubaa ma doon wax kullu muridin bii ah. yàllu fi yasxadu ndax defe naa ko naan musal ma ci bàmmeel lëna lëna <laughs> talagoo naan kullu muridin bii yàllu yow comme da ngay ñaan ñu muccal la yow mën a góobu cal kenn mën a góobu cal kenn ba naan ko aju ci man mucc. waaw waaw kon am na wetam gu ñuy tuddee Ahmadou Bamba am na murit yu ko fa gëm nag. waaw gëm ko baax. lu am solo. gëm koo xam ni boo jëloon dundam gi. jomuk sëriñ bi jom ja jomuk Ahmadou Bamba. ngor ja ngor gi. ful la ja sëñ Tuubaa mësta signé lu mu bañoon. mësta nangu lu mu bañoon. déedéet mësta mësta mësta bëgg it lu mu nangoo woon. barke sëriñ Bamba. Mhm. li tukki bi yàgg yàgg yàgg. Mhm. jom ji mu tàmbalee jom hmm. jooju la la mujjee ngor gi waaye musta ragal musta xof sëriñ bi musta tii fit wa fit wi hmm. waaye jàmbaar gi nag xam nga tukki sëriñ Tuubaa bi képp ku amoon baatinu mën koo def hmm. waaye sawarte gi boo ñëwee mën ngaa tooy ba faatu wallaahi ndax dégg jamaayom ba dégg nga sar saara wiir wiir <laughs> dégg wallaahi xam nga loolu lu yéeme kon Ahmadou Bamba ngoog koo koy Ahmadou Bamba muy ku kawe nag koo xam ne ku ko fa gëm sëg murid wér waaye tey nag murit bi nga xam ni ci Ahmadou Bamba la toll mhm. tey sëñ Saliou mën na noo xaar danañ waxtaan ak moom sa waaye du tey du tey waaw lu bari lañ ci mën a jàngee ci mhm. jom ci ngor ci fulla ci mhm. ah, wet gu waaye nag loolu du tey ci détermination wallahi ci objectivité wallahi engagement wala waaye kooku ci way jur yu baax ci way jur ci a jàng ci mën a jàng ci mën a mokkal ci mën a taalif mën a mën a mën a lépp lu nit di def mu man ca Ahmadou Bamba def na ko kon wet ga lañ ci mën a jàng bari na dëgg la waaye du tey xaar leen nu. xan nañ ñu xaar. xanaa kon tey dañuy dugg ci Abdoulaye. déedéet wetu Abdoulaye wax. tudd nga ah. wet gu fort. waaw wet gu rëy ngoog. waaye déterminé wul li tax sëñ Tuubaa mën a joué mission màggal. déedéet déedéet du du doon Abdoulaye rek mooy tax. Mm-hmm. yàlla tànn la ngir ngay doon borom 18 safar parce que wetuk Abdoulaye boo ko jëloon mm-hmm. wet gun mën a jàngale la ndax da nga xam ne Sëriñ Tuubaa jaamu yàlla lim ko jaral ah. mosoo gis jaam bu jaamu yàlla jaral lool xibaadaatuna faaxat xibaadaat xayruna wa billaahi min iblisa mm-hmm. max sikiri husna nga xam ne jaamu na yàlla ba yëg ni ak jaamu yàlla am kawe na jaamu yàlla kudul moom mm. ndax lam cey def ci yéene kenn mënu ko lam cey def ci ngor ak teewlu kenn mënu ko mësta julli waxtu te jàppalu ko njàpp mu yees loolu de moo la mos a tiim hmm. te moom amee ndox yeesal na ko loolu ma loolu ci ni ah. li wajhillahi tayaxanu billahi ahbabtu rasulallahi wallahi alayhi xayru lillahi abdun xadimun li rasulillahi hmm. nga xam ne ci abdullahi boo ko jëloon jaamu yàlla ak Serigne Touba. Hmm. gëmam yàlla wóolum yàlla waaye Serigne Touba ni mu doon teewloo jaamu yàlla nga wax nan ni bu daan xel kafe nii sax bu nii allahu akbar day bàyyi ñaari baaraam yi rek moro dëgg la bu xasee bu jublu yoonu jàkka ja kenn mënatu ko dëpp loolu ko musaaka sin musaaka di waxe waaye Serigne Saliou waaye boogu wet ki jekki baa nga zëhrali kaw niya abdallahi wallaay ndeysaan waaw ah, feeñ na ci man feeñ na joll na ci man mhm. kaw mhm. di soppeem nag mhm. di xaritam waaye waxit ban li wajhillaahi wallaahi billaahi ahbabtu rasulallahi xam nga Serigne bu naan la billaahi ahbabtu rasulallahi giñ naa ci yàlla ne ku bëgg yéen alayhi xayru salawaatullahi kooku mooy Ahmadou Bamba kon Abdoulaye moomu mhm. buñ ci ñëwoon mën cee jàngale ah, lu bari kookoy Abdou sëñ Tuubaa Abdou nga xamante ban jaamu yàlla ban taxawaay la am waaye murit bi ko gëmee foofu mhm. gëm na ku baax ku rëy gëm na koo xam ni ci wetu Abdoulaye mhm. mën nga cee defar sa àddina ak sa àllaaxira waaye murit boobu wax ma boobu dañuy xaar kooku danañ ko waxtaane waaye du tey danañ ko waxtaane nag waaye waaye wet gi suyee màggal gi ah, yàlla suwaasiir ko du wetu Abdoulaye li tax yàlla tànn ko du wetu Abdoulaye rek xanaa xaddimu rasul la bokkul ak xaddimu rasul ak li xaddimu rasul for for xaddimu rasul dafa for mbindeef yëpp daje nañ Sëñ Tuubaa rek ko am kenn musu ko am fi mu ne boo tuddee xaddimu rasul mm. kenn du la ne koy wax sakartuhu isqasani ah, bi xidmatin maahisani saa xidmatin fil xalani lahu wa fa tawallani kon dañ ko koo jagleel wallaay dañ ko koo jagleel mulkul xalil baaxil xaddi ba jaxalani asnal xaddi li man lahu fadlun yadu fadlun yadu daane wasaane ni fil xidami fil xidami kon xadimu rasul foo lu rëy seen mhm. sànni nee parce que xadimu rasul mhm. defuma ko sama bopp déedéet nee na yàllaa ma def xadimu rasul Mm-hmm. ñaareel ba mooy tuddewu ma ko sama bopp mm-hmm. yàlla moo ma ko tudde mm-hmm. sammayta nii xatxan bi xam dikal xat yi yaa man yaquudu lii ah, bu saaraati tëdd yow mi nga xam ni da nga maa defal da nga maa def may may may sa mbig mu sax di mbig mu yonent bi mbig mu sax di ma bëgge yow yaa ma tànn ci biir mbindeef yi nee def ma xaddiima rasul allahu qad jaxalani xaddiima xaddiima yàllaa ma ko def kon mhm, mhm. day wet gu rëy ndax mooy wet gi nga xam ne mhm. ci la lëggéey la yent bi lëggéey bu rëy bi bëgg ko bëgg ko kenn mës ta bëgg ko bëgg ko kenn mës ta bëgg ca la ko tagge tagg yu rëy yi wallaahi tagg yoo xam ne nee na dem na ba ni tagg yooyu yi yàlla dafa am mux ci yum dencaloon yonent bi yoo xam ne yonent bi jotu koo feeñal nee ma ñëw mu xëpp ma mux yi ne ma yaa koy feeñalal yonent bi moo tax mu naan xasaa it yi min muntaqa sallallahu ba bayit ba jeex jaare ci géej gi wallaahi dégg nga mu naan xallama ni rahmaanu fi safina mm-hmm. bi anna nii xaddiimu xaddiimu zil madina xanaa ca la waxoon man sànn annahu yakunu ah. abada yurdihi billasi ka xidmati bada wallaahi ndeysaan nafaytu sànnahu mm-hmm. bi anni al xaddiim bi maa wanaa xan mislihi kullu xaddiim wallaahi kullu xaddiim ci xaddiim rasul ci xaddiim rasul laa ko liggéeyale liggéey bopp kenn mësu ko koo liggéeyal te ku njort ne rek da nga ko liggéeyale ci liggéey bu ni mel mm-hmm. iblis la war moo tax dagg naa sa njortu la sànni. Mm. kenn dudu ko liggéey liggéey bu ni mel kon mm. xadim rasul for xadim rasul day lu rëy murit bi gëmee sëñ Tuubaa nag ci Xaadimu Rasuul waaw oh, sababu xëy ba téye foor na lool waaw mhm. ah, du moins Xaadimu Rasuul rëy na mhm. waaye diggante sëñ tubaa ak yàlla ba tax yàlla tànn ko di ko joueloo mission bu toll ni 18 safar mhm. mbindee fi am ci cër yonent bi am ci cër sëriñ Tuubaa am ci cër du wet googu kon murit boobu tey dañuy xaar ñu beral ko joxaay boppam ndax wet googu ba mu koy seq ak yàlla Xaadimu Rasuul amagut déedéet li Xaadimu Rasuul di yi boobu yi xanaa kon day Sëñ Tuubaa waliyullah ak wet la ci moom. ah waaw wali wali lu foor la. wali wali mooy Sëñ Tuubaa mi nga xam ni waliyu yàlla. yàllaa ko tànn boole ko ci wilaayatu. waaw mu am jox ko wilaayatu ci awliyaawullaahi. bokk ci xarit yàlla yi te ah waliyu daa foor alaa inna awliyaallaahi laa xawfun alayhim wa laa hum yaxzanuun allaziina aamanu wa kaanu yattaquun. Mm-hmm. lahumul busraa fil hayaati dunyaa wa fil mm-hmm. aaxirati. Mm-hmm. laa tabdiila li kalimaatillaah. daalika huwal fawzul aziim kon waliyu foor na. waaye nag wet gii nu bëgg a waxtaanee Sëñ Tuubaa. bokkul ak wetu wilaayatu. wilaayatu. du ñaar ndax Sëñ Tuubaa yi bul fàtte ni waliyu doon na ko maqaama la ci moom mhm. waaye feeñal na it maqaama mu sut mooma mhm. moo xam ne mënoo koo tudde doon yu doonte wilaaya yemul fenn mhm. ndax xam nga ne kinaan ni ngeen xam ne kat pàkk bu ma julli bu ne basal mal wala ma julli fa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca sansé pàkk boobee yàlla ubbi na ko muy buntu bu dem ba aras lu ko tax a jóg mu ne yéegal fa wàllu yoom bi hmm. wa kullu buqaxatin salaytu fiiha hmm. wa hiya baabun min abwaabi sama yasxadu fiihi awliya allah hmm. pàkk bu ma julli rek mu doon usine bi defar wàlli yu kooku maqaama mam taxoo may wax loolu ëpp na maqaama wàlli yu kese wallaay ndeysaan ah, moo tax ki naan ah, yasaralil a la daal limbar wali man qaadi lii maa qaaba xan kulli wali bi ma nekkee limbar wali la ma fa yàlla jox yëf la yooy waxuma wàlli yu mosu koo xam de mosu koo am de mosu hmm. koo xam dëgg la ab wàlli yu rek mës ta xam dara ca yooya ba di ko am dëgg la waxut maa xaasa de waaye maa xaaba hmm. képp ku taxaw ci maqam wàlli yu rek hmm. loolu ump na la ka nga xam ne ne am na loo xam ne ku doon maqam wàlli yu mu ump la fam taxaw di wax loolu xam nga ëpp na wilaayatu maqam wilaayatu moo tax wàlli yu foor na waaye du bokkul ak wet gi ñu wax waaye bokkut ak wet gii nu bëgg a ñëwee ki sëriñ yow wet gi ma laaj ki gëm bi en tant que wàlli ak wàlli yu li muy for for for waaye man ma ni wàlli yu mënta jouer film bi di màggal ki waa léegi nag kon ci gàttal comme mm. Sëriñ Tuubaa daa bari wet wet yëpp bëgg nañ cee ñëw Abdullahi mm. Ahmadu Bamba mm-hmm. Xaadimu Rasuul waliyullahi mm. a ngi dégg eh, borom Touba. waa léegi daal ci gàttal wet gu ne sax xëy na danañ ñu ci jotaay beneen wet gu gën a fort waaw borom Touba waaw loolu mbir la Touba rek leneen la Touba la beneen mbiram ngoo waaw borom xam nga Touba day alal yàlla alal yàlla ndax yonent bi nee na Touba shajaratun fil garab ga la gu nekk àjjana mhm. moom Touba kon Touba du domaine du mbindeef domaine yàlla mhm. boo demee ci sotti Ibrahima dégg nga yàlla bi mu koy wax tuuti ukulahaa kulla xiinin bi isni rabbiha uh-huh. nga xam ne alam tara kayfa daraballaahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fi samaa'i tuuti ukulahaa kulla xiinin bi isni rabbiha wa yadribullaahu lamsaal xam nga yàlla junj na fa garabu Touba junj na ko fa léegi lu tax àddina xew ba ñuy woowee sëñ Touba borom Touba mm-hmm. loolu gëneen wet la nga xam ne borom Touba bind lamtan huni uh-huh. muqaddamatul mawti wa xadra faxtu bil baqaa'i sawti bil baqaa'i sawti te Ahmadou Bamba ngi doon wax wàcc xaal waa mm-hmm. wam fax liyal gis maxay su ruuhu faaraxani fil xabri laa mm-hmm. tubliyanhu dahra yàlla wa kun nasiir yi mais c'est contradictoire kaay ma wax la pourquoi tous les mourides ne parlent pas le même langage mm-hmm. yow da gëm sëñ Tuubaa kii gëm ko kee gëm ko kële gëm ko mais kii day gëm Ahmadou Bamba sëñ Tuubaa la gëm mais Ahmadou Bamba la gëm mm-hmm. kii nag day gëm Abdullahi sëñ Tuubaa miy jaamub yàlla mm-hmm. kii gëm sëñ Tuubaa miy Xaadimu Rasuul kële moom ma ca sëñ Tuubaa bi nga xam ni. Mhm. mooy mooy waliyullah. waliyullah. kee nag day gëm Ahmadu. sëñ Tuubaa mii yonent bi. wallaahi <laughs> tooge maqaama. waaw bu bokkunu. ñoom ñëpp kenn bokku ci. wallaahi kee day borom Tuubaa. Mhm. boo waxee mu ne la barke borom Tuubaa. wallaahi moom ma nga ca borom Tuubaa gi taxaw. bokkunu bokkul ak ki naan Ahmadu borom jaam. déedéet nga xam ne moom foofu la taxaw. waaw daam. waaw léegi nag bokkul ak ki gëm daam. déedéet yooyu yëpp nag tey damaa bëgg ñoo ñu xaar ñu. Mhm. xam nga tey fu mu bëgg ñu dem. Ah. Sëriñ Tuubaa jaarul laahi. ki dëkk ak yàlla. ayatun min ayatillah ak Sëriñ Tuubaa aayatan min aayatun min aayatillaahi mm-hmm. ki nga xam ne aaya la maanaam jumtukaay la bu yàlla yi wanee ni moom yàlla rek a yàlla ndax alxuraan dañoo waxoon mel ni mbir mm-hmm. allahu alladi xalaqa sabxa samawaatin wa min al-ardi mislahunna yatanazalu amru baynahunna li taxlamu anna allaha ala kulli cheyin xadir wa anna allaha xat axaata bi kulli cheyin ilma wallahi nee na maa sàkk juróom-ñaari asamaan ak joj suuf mm-hmm. juróom-ñaari suuf nee ci diggante bi ñu ne ko lu tax nga sàkk ko li taxlamu alaaw alaaw la di xalaqa sab'a samaawaati bi ma ko sàkkee ba nag yatanazalul amru yatanazalul amru laa bëgg baynahunna li tax ma def ko nag mooy mhm. yatanazalul amru sama mbir mhm. laa ciy wàcce mhm. baynahunna léegi nag mu waxaat ni sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim xataa yatabayyana lahum annahu alxaq annahu alxaq nee na sama mbir mi ma doon muy sama dëgg ji du ma dañ di leen ko feeñalal ci kaw suuf ci li leen wër mhm. ak ci seen bopp mhm. ba ngeen dem ba xam ne man yàllay yàlla kon mhm. yàlla daa dig jaam ñi dinaa wane ay kawtéef yuy wane ni ma yàlla maa ngi la yëgal ba àdduna sosoo ak sunu jonn yàlla tey jii jëmm ji nga xam ni moom boo ko xoolee ak jàngat jëfam mu wan la ni yàlla rek a yàlla amul kenn koo xamante ni dab nga ci Serigne Touba mooy mandarga mi mandarga mi gën a leer buy wane kenn ku yàlla gi mhm. sëñ Tuubaa moomu nag laa bëgg ñu waxtaan xanaa loola tax mu ne jaxalani law taxaala aaya mujisatan wala ya xaadal aaya ah. Ah. Ah. yàlla damaa def jaxalani jaxalani def na ma def na ma allahu yàlla lu mu ma def aaya aaya moo ma def kii man ma doon mandarga mu koy wane mandarga muy wane ni ma di wane yàlla yàlla gi dëgg la di wane kattanam mm-hmm. di wane xam-xamam mm-hmm. di wane sañ-sañ waaye mux gisatan nag def ma may mux gi say rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo gis ak aaya bokk atte moo mm-hmm. gisa itam mandarga la muy wane ne yàlla yàlla te moo yónni yónente ba mu koy feeñal di dëggal dëggam ga wallaay kon boo xoolee fi mu ko bëgg a waxtaanee mooy fi mu doone aaya doone fa moo gis foofu weesu na maqaama weesu weesu na yàlla kenn da ko jox maqaama déedéet te nee na foofu yàlla mooy manifester yàllaam gi ci moom. li tax du maqaama. Mhm. mooy maqaama da ngay dox ba yegg ca. Mhm. lii nag du lay dox ba yegg ci. Mhm. yàlla mooy wàcc mbirum. ngir feeñal boppam. loolu mooy aaya. Mm-hmm. mooy loo xam ne yàlla da ciy wane yàlla mi mm-hmm. kon fii ñuy waxee ci sëñ Tuubaa mm-hmm. jëral mbindum mbirum Abdoulaye yeeg mbirum Xaddim Rasul ak mbirum nit ku bëgg yàlla di dox yooyu yëpp da nga koy effacé da ngay teg yàlla mu bëgg a wane boppam coobaree yàlla sëriñ Tuubaa machiyatullah mooy ki sopp yàlla te sëñ Tuubaa am na lu mu ñu waxoon wallaahi nee na wa uusikum maa ngi leen di dénk ah. ñu ne ko loo ñuy dénk Mbàkke mu ne ci ku sopp yàlla ku sopp yàlla na ngeen na ngeen ko wattu ah, na ngeen na sopp képp koo xam ne yàlla sopp na ko bi an tahabbu man ahabahullah ñu ne ko lu tax mu ni fa inna man ahabahullah hmm. yaf'al lahu ma sha'a ma sha'a mm-hmm. nee na képp koo xam ne mm-hmm. sopp nga yàlla mm-hmm. yàlla day doxe ci kooku coobareem coobareem sëñ Tuubaa nag fii ñuy waxee ci dimension bii ñuy waxee yow mooy yàlla moo ko teg di ci wane yàlla am ci moo tax mu ne tafdilu sil xudrati wal irada faddala ni wa huwa lii araada gis nga. Hmm. yàlla borom ngëneel yi. Hmm. wa anal fadla bi yadillaahi. yuuti man yasha. wallaahu sul fadli asim. Hmm. tafdilu sul qudrati. ngëneelul borom kattan ga. waaw. wal iraada. ak borom nameel gi. fadda la nii. gënal ba gënal ba gënlante wu ma. bu mu leen jaaxal nag. woo lii araada parce que maa ko neex. maa ko neex moom yàlla man la sopp. walaay ndeysaan xam nga loolu garaawatu. <laughs> ci sëñ Tuubaa loolu de kenn mënu ci dara. Ah, yàlla daal la neex ma neex ko. walaay ndeysaan mu ma wane kenn moo tax moo ma dëkk wa lastu asuku abadan. fii kaw nii jaaral badihi. ajaban lil kaw nii ajaban. kaw nii. kon foofu kenn du ko jox ma xaama ajaban la. ajaban la yàllaa ma def ma dëkk ak moom. Mm-hmm. muy feeñal ay mbiram ci man. Mm-hmm. moo tax kaw tiif laay doon. Mm-hmm. ci univers kenn du xam loo may tuddee kenn du xam foo may classé. Mhm. kenn du xam noo may définir. wallaay ndeysaan ñàkk maa xam nag mooy xam ma. wallaay ndeysaan na xajaban lil kaw nii. jaawaranil muxtadirul maliku. dima uh-huh. uli na li bihin muluku. wallaay wallaay bee dani maa dëkk ak moom bii mu ni sa weesu na ko moo hmm. dëkk ak man. dëgg la loolu ci nga mën a déggee. inna allazi min al ilahi xustu xaaba anil kawni wa fihi fustu les bienfaits que je vous ai apportés d'Allah mhm. n'existaient pas dans l'univers avant ma venue yi ma leen andil yéen doomu aadama yi ma leen andil andil mhm. leen ko ci àddina si mhm. nee na na ngeen xam ne bi ma dikkagul feeñagul déedéet kon ndekete yu yàlla dencoon la bëgg koo feeñal tan sëñ tubaa ngir bi ci feeñal boppam léegi euh, dimension bi ñuy waxtaane sëñ tubaa mooy diggante sëñ tubaa ak yàlla nee na foofa bu leen fa xool man déedéet bu leen fa xool gaa yi xool leen fa yàlla xool leen fa yàlla muy doxe coobareem foofa defuma waxuma moo tax sax foofu boo boo boo jàngul tawhid te mokkal ko wallahi te xàmmee ko exercice u tawhid bu jafe la da ngay defe ne sax mokkaale la ndax suñ tubaab léeg-léeg mu wax loo xam ni mm-hmm. yow sa tawhid day yëngu. wallaahi te fekk booba. Mhm. da ngaa teg jëmmi sëñ bi. Mhm. te ndax boo ko tegee doo dem. doo dem lu mu wax jaxalani. jaxalani laahu yàlla moo jaxalani laahu. taxaala aaya waaw tawhid gi wér kay. Mhm. mooy ki ne jaxalani laahu yàllaa ma def. aaya may mandarga muy wane yàllanti. muy tajjaliyaat ci man. waa léegi li ci yoonu sëñ Tuba. te du moom. yàlla mu am programme am. ne sëñ bi laa tànn ngir wane ko ko. ngir wane ko ci ngir wane ko ci. kon foofu yoonu sëñ bi newu ci. bi gis nga bu la mel ni milliardaire jàppoon bëgg a wane amu xaalisam ci yow. ci la nit ñi jommi. waaye déedéet waaye sëñ Saliou. milliardaire. waaw bëgg a wane ak milliardaire ci yow. <laughs> tout de suite nga doon millionnaire. yow nga ni. tout de suite sa oto c'est yes. waaw léeg-léeg day nga gis ko xam ne day jékki-jékki rek benn waa ji bari doole bëgg a wane kàttanam ci moom rek. ñëpp day daal di xam ne waa ji am na kàttan ko nag milliardaire. ca sensé. yàlla daal ni waaw yëpp yëpp si changé. nee na nan la ko min def ma ne nag ma dégg ko téléphone yàlla. wax <laughs> dëgg neex yàlla. te nu ko mën a màkk jox. kon nag euh, sëñ Saliou. buntu bii nag buntu bii la ñuy waxtaanee bii nag buntu. Ah. li ma ci bëgg a wax mooy mooy du sëñ Tuubaa kon fil xalxi kon bunt bii. déet du Cheikh Ahmadou Bamba fil xalxi de jiitu na mbindee fii ndax sëñ Tuubaa daa am ñaari wet nag mm-hmm. wax la ko tey ñaari wet ban ak mooy Ahmadou Bamba fil xalxi mooy Ahmadou Bamba mu feeñ ci mbindee fi. mu feeñ ci mbindee fi. Mm-hmm. ñu koy woowee daam ak mm-hmm. borom Tuubaa ak Xaadimu Rasuul ak Abdoulaye yëpp ci àdduna la mooy Ahmadou Bamba fil xalxi waaye dafa meneen Ahmadou Bamba bi ñuy wax Ahmadou Bamba xablal xalqi njëkk aadama mooy njëkk aadama maa ngi wax nag régie bi mën nañoo ubbil téléphone bi bu ko defee téléspectateurs yi nga xam ne bëgg nañoo ànd ak ñun mm-hmm. ñu daal di ànd ak ñun ci jotaay bi ñu affiché ñu numéro yi su ko defee am xam naa ni du ñàkk ñoo xam ne bëgg nañoo dugg ci jotaay bi mm-hmm. Serigne Saliou ko yaa ngi ca kaw de mooy Ahmadou Bamba xablal xalxi bokkul ak fil xalxi de a xablal xalxi kon Ahmadou Bamba mii muy bëgg a dugg waaw muy borom sababu xeebati anna allah araada ki yàlla nam ci moom amane ci màggal gi ah. Ahmadou Bamba xablal xalxi la kon ñoo nga ca kaw mm-hmm. yeneen yi dox ci suuf yëpp nag bu ca nekk daa am solo danañ ca dikki mhm. xam nañ Abdullahi mooy lan xam nañ Ahmadu Bamba xat kon xam lal xalxi foofu lañ taxaw kon dañuy njëkk ñëw ne waxi boppam la ba noppi mhm. doog a firi nag ni wax gi demee dëgg la xanaa kon looloo tax léeg-léeg muy wax ne saxaadat yi mhm. xam la wujuudil xalqi xam la wujuudil xalqi sabbataha wa kunta lii bi tilqi ngoog Sëriñ Saliou samak texe yàlla amal na ko njëkk muy amal benn mindeef mhm. waaye njëkk muy amal benn mindeef njëkk muy amal maam aadama mhm. wa kunta ca la ma nekkale woon wallaay ndeysaan maa ngi moom ba noppi bi tilxi ca la ma boyale woon toppatul sama dara lal xalqi mhm. la ma nii maa kaana xablal xalqi wallaahi man kaana man kaana lii bi karamin bi karamin wa tilxi yàlla a xan la ma nii moo ma xamal yàlla moo ma xamal lan la la xamal mu ne maa la nga xam ne kaana nekk na xablal xalqi xablal xalqi laata mbindeef yi yow question bi ngay njëkk a dugal mooy sëñ Tuubaa laata mbindeef yi moom fu mu nekkoon moom bu dee moom mbindeef la. waaw parce que leen lay xamal avant kenn di ne. balaa nga koo xam nekk. balaa nga koo naan ne fa. Mhm. loolu la war a wax kon téléspectateurs yi mën nañoo ànd ak ñun ci. Euh, serveur bi kon mhm. numéro yaa ngi noonu euh, bu ko defee ko bëgg a tàbbi ci jotaay bi mën cee tàbbi kon xan la ma ni maakaana xablal xalxe mhm. sëñ Tuubaa mooy wax ak ñun ci dimension xablal xalxe mhm. ba léegi murit bi ko gëme fil xalxi bokkul ak murit bi ko gëme xablal xalxi loolu tamit day tax tous les murit ne parlent pas le même langage encore ba léegi xablal xam ne xablu la ciy wax xablu xanaa moo tax ma naan naadaytu huwa xablu tanaajiyal muhib wa fil munaajaati xawaytu maa uhib wallaay ndeysaan naadaytu diyaale woon na ma ak moom yàlla loolu kañ la fil xalq mu dee xablu la xablal xalqi xablal xalqi njëkk benn min def di am njëkk muy sàkk aadama mhm. doon naa déyeeg moom ca xoon nañ ab déyeeg moom ca yooya déyante bu mel nan mu ne déyante nag naa hmm. gay tuxoo xablu te naa mu muhib mooy déyante ñaari soppe wallaay ndeysaan ndax yàlla ba ko fàtte maqaamam mahabbatu hmm. ci lay fale ko ko sopp hmm. mu ne maa def soppe muy di sama soppe ñuy déyante wallaay ndeysaan ku fil mën a jaat yi ci déyante yooyu jiitu xablal xal wallaay ndeysaan xawaytuma li ma bëgg lépp ca laa ko amee woon ñëw mi ci àdduna di fi wut li ma amagut man bi ma ñëw li ma bëgg lépp am na ko foofu problème lay jur kon la xablal xal bi léegi sëñ bi yemu ci de nga ni déggoo mu ne rahmaanu. Hmm. xablal xalqi. wallaahi. ajaabani rahmaanu xablal xalqi. Hmm. ajaabani nee na nangul na ma. Hmm. yàllaa ma nangul. nangul ma lépp. arrahmaanu yàlla arrahmaanu yàlla. kañ la la nangul. bi nga wàccee feeñee jamono. 1900 nangam 1900 nangam. wala 1800 nangam wala bi nga ëgg si ba Touba. wala boog liggéey ba nga def maa yomb rëy gëm rëy moo tax yàlla beeg nangul la mu ne yàlla ba mu may nangul ah. maa yomba xewagul tubaab juddoogul déedéet aadama sàkk gun ko jibril amagul wallaahi xalima ga yàllay binde dogal yi ba tax mu naan nuun wal xalami ah. wa maa yafturun mhm. maa anta bi nihmati rabbika wa inna laka la ajran wa innaka laa la xalima googu sax yàlla bindagu ko bi ma yàllay nangul moom rek ka fi ne xam dal mhm. xalxi benn mi def amul waaye sëñ tubaa dama ne sëñ tubaa kenn du moom déedéet daam moom amul maram barke sëriñ bamba xam lal xalxi laay wax li may wax nag day lii ñuy wax day loo xam ne Serigne tubaa moo ko bindal boppam. ba noppi waroo wut ak alxuraan ak sunna te ku nu topp mu leer la. moo tax benn murit mënta jox suñ tubaa dimension bu bu mu amul. déedéet amul ku ko mën. Mm-hmm. amul amul. Serigne Touba loo loo dimension boo ko jox moo ko njëkk a jox boppam. Mm-hmm. ajaabani rahmaanu qabla al xalqi. sabxiina alfa sanatin alfa sanatin mm-hmm. bil xaqi. te waat na ko nag. te da koo waat. bil xaqi bil xaqi. giñ naa ko ci yàlla mii dëgg wallaay li ma wax bu leen ko werante déedéet noonu yi la demee te nee na ba ma yàlla nangul te mindeef xewul ah. booba laa doon diyaaleeg moom mm-hmm. naagi te nii xablu xablu tanaajiyal xalim wa fii munaajaatiya xuttalil xulóom diyaale na maag moom kañ mille neuf cent nanga wala mu ne déedéet xablu booba sàkkagul benn mindeef de mm-hmm. koo doon diyaale mu ne xalim yàlla mi xamaakoon bi dëgg la sa sama diyaale yooyee mm. mboolem xam-xam yëpp ci la ma ko wamatale dëgg la te booba xablal xal xel waaye léeg-léeg mu ne xabatullah xabatullah wallaay ndeysaan salaasa mi ati alfi haamin wallaay ndeysaan qabla irhaati aadama wa hawa wal hawa wa yow ma abdullahi yow ma abdu xam nga sax foofu daa indi ñaari temps ñaari temps mooy xabatullah jaamu na yàlla tuddoon naa abdullahi tuddoon naa abdullahi di ko jaamoo yàlla kañ la loolu mu ne ñetti téeméeri junni at ci ati yàlla ya ci ati yàlla ya ndax ñun sunu at yi jant bi la ci xamar yàlla yi dox ci xamar yàlla yi dox léegi bu fekkee sëñ bi dana la xablal xalqi ah. at yooyu kenn xamul lu mu toll nee na loolu xablal xalxi la mm. may jaamu yàlla xam nga ni foofu sax sëñ Tuubaa nam fa doon jaamu yàlla jaamu yàlla du mm. julli yi nga xam déedéet amul kayfiya ndax julli yi mm-hmm. bi mu wàccee yàggut déedéet ci Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la wàcc mm-hmm. te julli balaa nga koo mën a def jant daa am mm-hmm. te booba jant amagul ndax xablal xalxi la nee na may jaamu yàlla nee na laata aadama di xew ñetti téeméeri junni ñetti téeméeri junni at laata xawaa di xew xabla irhaasi aadama wa xawaa tey ba tey jii nag wala yow Abdoulaye fii ci àdduna yi tuddaat ci seen biir tudd fi Abdoulaye di jaamu yàlla kon foofu da nga gis ni dafa am Abdoulaye ga ca kaw Abdoulaye xablal xalqi ak Abdoulaye fil xalqi kon ñaari Abdoulaye bokkul ba tey Sëñ Tuubaa da koy tàqale biir ay wax ndax Abdoulaye xabla xalqi amul forme nam ko doon jaamu boobu boobu xibaar ah, mel na ni Sëñ Saaliw am na mbokk mu nekk ci biir ligne bi bismillah mbokk mi bismillah mel na ni mbokk moomu génn na ñoo ngi jéggalu ci loolu kon gis nga Cheikh Ahmadou Bamba xablal xalxi ak Cheikh Ahmadou Bamba fil xalxi ñaar yu bokkul la Serigne Saliou boo seetloo El Hadj Boubacar mhm. bayit yi ñi fi jot yëpp Serigne bi kon moo communiqué ñun ne am na xablal xalxi waaye li bëggoon nu ñëw ci nag mhm. mooy ndax nekk xablal mhm. am ba sañ a wax wax yi ngay wax ne am naa lii def naa lii te boobu min def xewul ndax loolu alxuraan d'accord na ci ndax loolu alxuraan d'accord na ci ñu dem jëli téléspectateur boobu ñëwaat Serigne Saliou mbokk bi bismillah. salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. ku ñu leen yàlla yàlla nangu ziar. daal di leen baax baax. mbokk mi noo tudd ak fooy wootee. maa ngi tudd Mor Cissé dëkk Touba. yaa ngi tudd. Mor Cissé. ndeysaan Mor Cissé. di wootee Souté. dëkk Touba ñu ngi lay bëggee bu baax moor Cissé. waaw ñu ngi lay baax di kontaan ci yéen. di ñaan nga yokk kàddu gi bu baax Mor Cissé. ñu ngi leen ziar baax di kontaan si yéen baax a baax. ah alhamdulilah rabbil alamin. yàlla na yàlla yokk xam-xam bi. amiin yaa rabbal kontaan nañ lool walaay kontaan nañ lool. ndeysaan euh, dëgg la dëgg la. wallaay yàlla kontaan. alhamdulilah yàlla ko xamal baax di jërëjëf kon kooku. mooy Mor Cissé ñu woo ziare moom Mor moom yàlla ko. ñu ngi koy ziare bu baax di ziare bu baax kon sëñ Saliou da laaj lu am solo. loolu laaj bu am am solo laa bëgg nu ñëw ci. mooy ndax léegi nag possibilité bi Serigne Touba feeñ ci mbindeef yi tudd Ahmadou sant Mbacke juddoo dëkk sàngam faatoo bërëb sàngam mhm. ba pare naan la nekkoon naa xablal xalxi mhm. te ñu xam ne fii ku fii nit aadamaay samaam mhm. ndax annaasu wala du aadama ah. wa aadamu min turaabin ah. da nga naan ku la dégg naan déggal waa sunna rek waa tas waa tasawuf da nga dégg léegi suba nga gis ku la def vidéo naan déggal waa tasawuf ndax xam nga réew mi ñoo déggul alxuraan ak sunna <laughs> walaay ndeysaan gaa yi jàngunu gaa yi jàngunu moo tax dañoo war a noppi mbindeef yëpp aadama ci ci lañ tàmbalee wallaahi wa iz qaala rabbuka lil malaa'ikati inni xaaliqun basaran min tiin ba aayee taqwa rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha allati tasaaluna bihi walirxama inna allaha kaana aleykum raqiba aleykum raqiba ñu naan ñu naan xablal xalqi wallaay xablal xalqi ah, diggal lii rek te sëñ Tuubaa feeñ ci mbindee fi ah, ñu xam ko ko gan ku ko jur moo bëgg moo bëgg li ñuy njëkk a indi na <laughs> mooy du ko yor jëmmi nit rek démb nga juddoo déedéet du ko yor jëmmi nit rek démb nga juddoo déedéet xanaa xamoo nit lu ne mën a feeñ ci moom jàngal nga ko léegi mhm. foofu laa bëgg ñu njëkk faa ñëw sax mooy jëmmi nit kii mhm. day enveloppe te enveloppe lu nee mën a ne ci biir lu a ne eh, mën ngaa génne enveloppe def ci dix mille wallaahi bu la neexee nga def ci cinq mille mhm. ah sëñ Saliou am na mbokk mu nekk ci ligne bi bismillah mbokk mi bismillah mel na am jafe-jafe dugg kon mbokk mi ñu ngi ñaan nga wàññi télé bi sa télé te ñuy te dégloo ñu ci sa telefon mel na ni mbokk moomu dem na téléspectateurs yi ñoo songu ligne bi waaye nag ci lañ mbokk mënta ñàkk waaw jotaay bi seenub jotaay waaw jotaay bi seenub jotaay wallaahi Serigne Saliou mhm. lu ne mën naa dëkk ci nit wallaahi lu ne mën naa dëkk ci nit mhm. balaa nga koy xam da ngay ñëw ci Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam kuy baayam xanaa Abdoulaye Abdoulaye baayam Aminatu mooy ndeyam wallaahi mu juddoo mag mbaa jàppoo ni kon yonent bi booba la feeñ yonent bi kon nekkul boobu. Abdoulaye ci boppam ñu ngi ko sàkkee ci yonent bi. question boobu mooy jëkk dugg. kon yonent bi nekk na avant Abdoulaye mi naan mooy bàyyi. kuy maamu nit ñi. Adama Adama moomu ñu ngi ko sàkkee ci yonent bi te aadamaa njëkk doon nit. nga xam ne Adama mag moom maam maam Abdoulaye. waaw xam nga moom mag ba mag sa maam yonent bee ko def. maam ak sama maam te loolu da ko wax hadiis la. la léegi mu naan kuntu nabiyan xaarifan wa aadamu baynal maahi wa tiini baynal maahi wa tiini wallaahi kuntu nekkoon naa mhm. nabiyan di ab yonent xaarifan mhm. di ko xam yàlla mhm. ñu ne ko boobu ana aadama mu ne aadama wa tiini mi mm. ne ko fekk na wa aadamu baynal ruuxi wal jasad ba tey baynal <laughs> boo xam daa rek mutawaatir la mutawaatir a moo ne feeñ na ci jëmmi nit diggante Abdoulaye ak Amina. Mhm. waaye moom ak leeram moo jiitu loolu. waaye Sëñ Saliou dafa am leneen lu koy dëggal. Mhm. mooy xaalam bii ñu nekk. mooy àddina sii ñu nekk. fii la ñuy wax naasuut. wala ñu koy wax mulk. Mhm. waaye yàlla du mulk rek la sàkk. déedéet am na yeneen àddina yu yàlla njëkk a sàkk. yoo xam ne ñoo jiitu am na àddina su ñuy wax malakoot. am na àddina su ñuy wax jabaroot. te malakoot moo mag jabaroot. jabaroot moo mag mulk. gis nga bi fi malakoot kese di ne. malaayika yi kese fekkoon na mu am fekkoon na mu am. Mhm. waa léegi dama lay laaj jamono jooju nga xam ne aadama juddoogul. Mhm. malayka yi yàlla def yonent bi mu jëmmal yërmandeem ci moom. Mhm. boobu malayka yi ban jëmm lañ doon gis ci yonent bi. bokkut ak jëmm ji bokkut ak jëmm ji ñuy gis fii ndax malaaka moom jëmm xewu fa jëmm xewu fa mhm. booba Abdoulaye xewagul mhm. Aminatu xewagul déedéet booba Ibrahima xewagul kenn xewagul kenn xewagul kenn mhm. xewagul amul benn doom bu juddu aadama sax xewagul kon booba yonent bi amoon na moo tax malaayka yi suñ la déggee nga naa yonent bi nit la ñoom ay ree da leen di jàpp buñ doon ay nit ndax xamewuñ ko ci nit ndax ñoom xamewuñ ko ci nit xam nañ ko ci meloom woo wii ay junni junni at te booba àddina amagul kon gis nga ni kon yonent bi salaay salaam facetam boobu moom ak facetu nit yonent bi nit la mujj doon Hmm, xanaa kon looloo tax si ñu naan nubuwatuhu xablal baraaya. xadim jalat. daanaka la ko sàpp xiinal jadd fi tiini yuxsanu hmm. yonent bi nit la mujj doon sëñ hmm. Saliou maanaam jëmmi nit la mujj feeñal facette nit la mujjee feeñal la mujj am te facette boobu mooy facette bi gën a gàtt ci lim ko feeñal maanaam 63 ans la ko feeñal la ko feeñal siira gi ngay dégg yëpp ci loolu lay dox waaye am na beneen Muhammad boo xam ne moo mag nit te booba amul kenn koo xam nit tasawuf nga teg a weddi ko te moom waxal na ko boppam ci rdis mm-hmm. kon gis nga ni facetu nitam ki mm-hmm. am na facette bu ko jiitu moom kay facette am na facette boo xam sax xam lu mu defee ña la waaw abdiwu mm-hmm. jibril la waxtaanal waaw yow jibril ñaata at nga am jibril naan ko man am naa nangami nangami nangami eh, nangami junni at daal samay at daal jàpp ma ko lool waaw waaye am na biddiw ba daan fenk boo xam ne bu fenkee dana def juróom-ñaar fukki junni at ak ñaari at doo ko suux ma di ko xool man Jibril ne ko jàkk di ko xool di ko xool kooku nag fenk na juróom-ñaar fukki junni yoon ak ñaari junni mm. boo xam ne bu fenkee dana toogaat juróom-ñaar fukki junni yoon ak ñaari junni. doo ko fenkaat ma toog di ko xool. fekke naa ko juróom-ñaar fukki junni yoon. xam nga Jibril mag la Jibril mag la. Jibril man yónni woon ci Adama nag. <laughs> Ah, moom mu wax loolu lépp. Eh, yéen yéen tontu ko lan. ne ko na nga xam ne annaa. xala nga xala nga. Ah, yow yaa Jibril mag nga waaye yow nga yow mag yow ba nga juddoo yàggul ana zaaka mm. zaaka saalikal kawkab kawkab man mii maa nekkoon biddéew boobu nga doon seen kon xam nga ni ko kon melawam nekk foofu waaw di fa biddiw ah. bokkut ak melaw nit ki bokkul ak melaw nit ki de kon boobu am nañu ko jiite da xam lu tax sëñ Tuubaa naan ko kuntu nabiyyan haarifan haarifan wa aadamu baynal maahi wa tiini yan jëli la si uhti xitman nubuwatan wa aadamu baynal maahi wa tiini yan jëli mosta taqaddumaka wal jaddun jadal moo tax waaw moo tax sëñ naan ko xaddamta bi taqdimil xali yaa rasulanaa yaa rasulanaa mooy yow jiitu nga mhm. ci biir jiitu yàlla gi ndax booba yent bi day leer leeruk yàlla day leeruk yàlla mhm. te gis nga leer googi mhm. ci la lépp daje moo tax possibilité mën a wax ak yàlla xablal xalqi loolu mën a am sëñ Tuubaa mii nuy wax nag daa dugg ci ci ci domaine boobu ndax fii muy wax ak yow bëgg a wax ne maqaama maqaamam ahmadiya ci la sëriñ a taxawee di wax kon daal ma la déggee waaw ki nga xam ne day laaj question ndax mën ngaa nekk xablal xalqi mhm. tontu nga ko ci ne ko loolu mën naa nekk nag rasulullahi doy na ci firnde. Mhm. addis bu wér dikk na. dëppook aaya bu leer ci na nekk na moom yonent bi te mbindeef amul mhm. te boo ko weddee wedd lislaam waaw loolu mooy li wér mu mel ne kooka daa dugal question ci biir question bi ne laajuma la rasulullahi ndax lislaam wax na ko dëgg la sëñ tubaa kon mhm. mi ngi biir nekkuk rasulullahi loolu la ko waral sallallahu alayhi ndax yonent bi leeram du dee des koy donn mhm. te sëñ tubaa nee na dama koo donn arfan bi arfin kon gis nga foofu li mu fi njëkk a xamle mooy juróom-ñaar yëpp ñu ngi ciy tasawuf hmm. nit li muy dund da koy jéem a xam dëgg la lu ko may réeral li ngay dund mën naa tax kat ñu la ci yomb hmm. tasawuf kon daa saxal ni hmm. leerug rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ba ko yàlla nekkalee jële ko ci leeram min nuurihi kullu nuurin da ngi dégg wala fa xabattu xabdatan min nuuri gis nga leer googee bi mu existé nekk rek mbooleem koo xam nga am nga mission ci biir leer gi mhm. moo xam nga war a doon ab yonent bu koy jiitu te dikk ci leeram gi mhm. wala nga war a doon borom jamono ju koy doon nu ginnaaw bi mu feeñee mhm. kon képp ku na la doon kun war a investir ci biir mission bi yonent bi ba mu nekkee rek en potentialité nekkaale nga ci biir nekkam nga dëgg la loolu moo wér loolu képp kuy dund tasawuf da ko war a xam waaw xanaa kon looloo tax léeg-léeg nga gis gaa yi tasawuf yi ku mel nekk booba mbindeef amoon maa ngi ci biir leer rasulullahi xam nga loolu képp kuy xaadir te jàng te jàng Cheikh Abdou Khadir Jilaani jàng nga ko xam nga moom lu mu wax ah. dañuy wa sirri hmm. sama secret hmm. fil hulia ca kaw laata hmm. benn mbindeef di judd ñu ne ko waaw kon yaa nga fa woon mu ne maa nga fa woon ñu ne ko waa ban bërëb nga nekkoon mu ne bi nuuri muhammadin bi nuuri muhammadin sama secret bi ngi woon ci biir leeruk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko waa leeruk yonente bi fu mu nekkoon mhm. mu ne fakkun naa mhm. sama secret ah. nekk ci biir leeruk yonente bi man ak leeruk yonente bi mhm. fakkun naa bi sirrillahi ñu nekk ci biir secret yàlla wallaahi yaa ngi dégg ñu ne ko waa loolu kañ la mu ne xabla nubuwati xabla nubuwati booba yàlla bindagul sax yonent yi déedéet bindagul sax nu nubuwa nubuwa sax yonent bi yonent bi joxoon ko joxoon ko mi ngi ci nuuru kon mi ngi ci nuuru waaw kon gis mhm. mhm. fay dégg ni kon leer googee ku ku rek mhm. ba leer ga nekkee en potentialité yaa ca xanaa si ama tijaan looloo tax sax nga dégg ba mu ne xadama hadama hadam hadama haatayni mm-hmm. ala raqabi kulli waliyin mm-hmm. min ladun aadama ila nafxi suur la am luñ ko teg mm-hmm. dañu waruhuhu wa ruuhi ruuhuhu wa ruuhi hakasa mm-hmm. ruuhuhu tummidul anbiya wal mursalin mm-hmm. wa ruuhi tummidul awliya wal xaarifin si mm-hmm. Ahmada Tidiane xayr siar Tidiane yëpp ba mu ne jël naa sama ñaari tànk yi teg ko ci ndëggul bépp wàlliyu muy maqaam xat mi yebee kat mi yebee mm. la dalee maam aadama ba ñu wal buftu ba di ngaa teg ne sama róogi mm. ak ruug Moustapha nii lan def ñoom ñaar ñaari ñaari ñaari baaraam yi tàqalikoo wunu daa ne róogu yonente bi mooy tëbbu leer lu lu ruug yonente yi ak mursalina yi mhm. sama roog yi di tëbbu leer lu ruug wàlliwu yi ak xaarifiina yi ne na ba leeru yonente bi déparé mhm. booba la sama leer départ mhm. fu mu ne woon ni mi ngi ci biir leer yonente bi yonente bi taxawee maqaamatu nubuwati sama leer gi taxawee maqaamatul wàlliyati kon loo ciy déggee mooy leer googee di leer yonente bi nga xam nekkoon na xablal xalq ba tax siñ bi naan nubuwatu xablal balaa yaa xaddin jalat tax moom mu nekk naa te booba aadama baynal maa yi wa tiin mhm. leer googee ba mu amee rek mhm. mbooleem koo xam ni investir nañ la ci leer goog nga am ca mission mhm. moo xam yónent bu ko war a jiitu nga li tàmbalee maam aadama ba ci Isa nekkaale woon ci biir leeram nga sag leer waaye ku ko war a doon waat di borom jamono nekkaale nga sag leer ci biir leeram nga moo tax lu mel ne li Abdou Khadre Jilaani wax Ahmada Tijaani wax ko léeg-léeg nga gis ku mel ne Abu Yusuf Bustami wax ko noonu la koy waxe léeg-léeg nga gis ku mel ni kene waaja Cheikh euh, Abou Hassan Assaseli. Assaseli walaay ndeysaan ponkal yooyu ponkal yooyu nga xam ne ay nit yi tasawuf lañu. Imaar bil Aatim yi ñoom. Mhm. naan la boobam. ësël la woon ësël la woon amagul foo nekkoon wax. kon loolu du problème. nee moom ci alastu bi rabbikum la xàmmee gaa yi nga xam ne ñoom la ko yàlla boole. kon booba dañoo connecté kon. dañoo connecté ca leeru Muhammad rasulullah mooy leeru rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu sax nag alaaj nga koo gën a leeral ci alxuraan waaye sëñ Saliou balaa may ñëw ci alxuraan sax damaa bëgg lampe bi ñuy xool nii mu weex. lampe bi. Euh, fi ne weex ngay gis. la science démontré ni blanc ngi ci biir. blanc bi. rouge ngi ci biir. rouge ngi ci biir. vert ngi ci biir. vert ngi ci biir. Euh, couleur yi ngay gis yëpp mi ngi ci biir lampe bu weex bi. te yow boo xoolee weex ngay gis. weex <laughs> mhm. ñu génn ca rouge nag defal ko muy lampe boppam muy veilleuse. ñu ne nu mel ñu ne daa rouge. Mhm. bii nu mel ñu ne bii nag bu bu bu la. Mhm. waaye couleur ñu ngi ci biir couleur blanche. xanaa kon mooy dugub. waaw ni ca laax nekkee. ruy nekk lañ jékki-jékki interrogé ni ko mais yow foo jógee. allo. yow fonde yow fan nga jóge yow. mu ni ci dugub. mu ne ah man. Ah, bismillah kon am na mbokk mu nekk ci ligne bi. allo. allo salaamaaleykum. waaw. maaleykum salaam. mbokk mi ñu ngi lay nuyu baax. ça ñi daa dama doon woote sëñ ñoom ñu nekk ci tele bi. dëgg la. allo. mbokk mi bismillah yaa ngi ci télé bi dañ lay ñaan nga wàññi sa télé. te dégloo ci téléphone bi. bu ko defee ñu gën laa mën a dégg waxtaan wi neex. bismillah mbokk mi oh, da ngay wàññi sa télé sa télé ngay wàññi télé télé dem na mel na ni mbokk moomu dem na ñi ngi ñaan képp ku woote rek nga wàññi sa télé te dégloo ci téléphone bi bu ko defee waxtaan wi neex ndax yéen ci waxtaan wi ngeen bokk kon Serigne Saliou yaa ngi joxe ci leer gi ba ca ñëpp nekkee ba ca ñëpp nekkee ci biir ban laajee fonde fonde dañ na ko foo jóge mu xool ba boppam daan ne man kat maa ngi jóge ci araw arawoo ma jur. arawoo ma jur ñu ne ko waaw yow araw yow. ku la jur nag. yow ku la jur yow. Mhm. mu ne ah man kat maa ngi jóge ci mooñ ñu ne ko ñu doon mooñ. sunguf mu ne sunguf. gaa yi ne yow sunguf foo jóge xam nga mi ngi yéeg ba léegi. waaw sunguf fan nga jóge. yow sunguf yow fan nga jóge yow. wallaahi mu ne man nag maa ngi jóge ci dugub. dugub dugub ñu ñu ne ko yow foo jóge moom ma nga jóge ca éppi ba ca. ca ca ca tool ba. ca tool ba ñu ne ko waaw yow yow mbool moom yow foo jógee. ma nga jógee ci pepp dugub. waaw mu ne man ca pepp dugub ca jiwu ma. kenn gis nga jiwu gi. Mm-hmm. arawa ngi ci. waaw laax ngi ci. Mm-hmm. caakire ngi ci. Mm-hmm. fondé ngi ci. sëñ Saliou lépp ngi ci biir. te boo téye woon dugub ni doo gis ñooña. ñooñu mënoo leen a gis <laughs> xanaa boo jàngee alxuraan. ba yàlla naan Seydina Adama génnal. génnal. ihbitu lu tax yàlla ne ko new ko génn. dana ko génn leen. waaw nu ko ko ihbit génnal rek. déedéet niwul ihbitaa sax yéen couple bi. waxul yéen ñaar. waaye ihbitu. ihbitu yéen ñëpp. génn minhaa jamii'an. yéen ñëpp kenn des ah. te ñaari nit ngay wax. ana ña ca des kon. des ñu ngi woon en ci biir Adama. ci biir Adama kon yàlla ñëpp wàccee ndoo xoola bi mu wàccee Adama la ñëpp wàcc. ñëpp wàcc. déggoo ñaa mënu andi fii. <laughs> mënu fee te kenn mënu fee fàttali ko ba nga duggee. <laughs> déedéet. kon dugg Adama waaye génnam nga gis nga euh, leer ko yonent ñëpp ngi ci en potentialité. Mm-hmm. waaye Serigne Touba. damaa bëgg bala ngaa ñëw ci sëñ Tuubaa waaw lii explication bi leer na dëgg la waaye ku bare ku bare dinaa ne ba tey waxagoo alxuraan bi ak sunna leeram nga ba mu nekkee la leer yëpp nekkaale ci biir ku leer ko concerne na yaa nga ca waaw moo xam yónante nga wala ngay wàlliyu bu koy donn mhm. loolu kat seen wax la fu alxuraan wax mhm. nañ ko ko génneel ci alxuraan kon wallaay ndeysaan kon alxuraan mën naa expliquer mhm. ne leer ko yónante bi ba mu nekkee mbokk bi bismillah bismillah mel na ni mbokk moomu génn na waaw ñu ñëw kon ci alxuraan kon alxuraan mën naa expliquer ni leer yonent ba mu nekkee mbooreem leer koo xam ni leer gi concerné na rek nekkaale woon nga dëgg la ci misaal mhm. mbooleem yonent bu tàmbalee ci maam aadama mhm. ba ci yonent yàlla isa alayhi salaatu wa salaam hmm. keroog ba leerug muhammad rasul lay amee ca ësal moog yàlla booba hmm. la sag leer amaale dëgg la ndax ñoom ñëpp seenug leer gennug leer képp la hmm. kon nubuwa genn la nubuwa genn la nuuru nubuwati genn la yaa ngi dégg leer googu nga xam ci leen doon liggéey genn leer dong la mooy leerug Moustapha dëgg la leer googoo jaar ci aadama ba ci yonent yàlla isa kenn ku ci nekk la nga ca war a indi nga indi ko la tolloog sa jamono ba matee nu roccee leer ga ci yow teral sa jëmm mhm. jël leer googee dolli ca lu ëpp tam dëpp ak jamono rof ca keneen dëgg la li ko dëggal mooy mhm. nan dem ca alxuraan mhm. saa yuy wax baatub nuuru laahi musu koo def jamono amul fu fu nu waxee anwaar kaa ngi may diglu waaye jàngaguma ci alxuraan man te xawoon naa ko mokkal foo xam ni anwaar am na fa wallaahi ndeysaan nuur rek lay wax man de ba sànq bi ma koy jàng wallaahi gisuma ci anwaar wa man naslam mi man iftara ah. alallaahi alkadiba wa huwa yuddaha ila al islaami wallahu la yahdi al qawma alzalimin hmm. yuriduuna li yutfiu nuur allahi bi afwahihim wallahu mutimun nuurahu walaw kariha al kafirun walaw kariha al kafirun huwa alladi arsala rasulahu bil huda wa diini al haq li yushirahu ala diini kullihi walaw kariha al mushrikun wallaahi kon gis nga ah. foofa dane am na ay gaay yu jug hmm. bëgg a fay leeruk yàlla gi hmm. nuur allahi waaye na ngeen xam ni leeruk yàlla gi du fay mukk ndax yàlla dana ko mottale ni mu ko bëggee. déedéet wallaay ndeysaan te leer googu kat jaar na ci aadama ba ci yonent mhm. mhm. koy wax anwaar anwaar lañ koy wax te yàlla waxul anwaarallaahi mu ni ko def mufrad wallaay ci aadama ba ci Isa mooy leer ga rasulullah sallallahu alayhi wasallam déggoo mu ne wala xandar salna Muusa min xablika ah wallaay ndeysaan nga xam ne jan rek la. wala xadar salna Moussa. Euh, bi ayatina bi ayatina. an naxri xawmaka min azulumaati ila nuur ila nuur ak allah waliyul lasina gi genn képp la. leer gi genn képp la. allahu nuurus. samawaati wala masalu. nuurihi ka miskaatin. fiiha misbaahunil. misbaax fii sujaajatin. sujaajatin ka annaha. kawkabun duriyun yuuxadu min sagiratin mubaarakatin saytuunatin la sharqiyatin wala xarbiyatin yakaadu zaytuha yudiyu walaw lam tamsasu naarun nuurun ala nuurin yahdillaahu li nuurihi man yasaaw wallaahi gis nga nuurun ala nuurin li nuuri yi li nuuri yi booboo fenn anwaar anwaar déedéet moo tax fële lu mu wax yuriduuna an yutfiu nuurallaahi bi afwaahihim bi afwaahihim wa yaaba llaahu illaa an yutimma nuurahu walaw karihal kaafiruun walaw karihal kaafiruun ca surtu taw nga gis na kon nuur saa yu koy wax benn rek lay wax lu tax mu koy def benn ndeke kon leer gi genn la kon nuuru Muhammadu googee leer ga ca aadama ak gi ci Isaa genn la moo mate ci rasulullahi dans sa totalité maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatima nabiyina wa kaana allahu bi kulli shay'in halima halima xanaa kon baleer ga nekkee séq yàlla lam séq ma xablal xalq ñoom ñëpp a ngi ci woon ci biir kon aadama nekkaale na isa nekkaale na Moussa nekkaale na Ibrahima nekkaale nangam nekkaale doo dégg sëñ Tuubaa nuurun waaye xasimun xad yara bihi qusuura qaysara man kaana fii ummil quran makkata xayrul xurumi iwaanu kisran loolu ca andi xasimun waaw waaye gis nga ni leer nekk benn di nga continuer sa ban iwaanu sa sadaha fiha wa qabru fiha samkullu fartafa annahu wasmal mukarim fatta li ajli xaw li nixtara afdalil wara rabbi alayhi salim ahmaduna al muxtaari waaye nga xam ne mënoon naa anwaari naasi bi sax dañu ahmaduna al muxtaari ah. yaa mu rusul yi nuuru rusul ar rusul luy firi ar rusul mooy yonent yëpp ba pare mu ne nuuru kon kon kon ñi ñu yëpp genn leer lañ leen yónni mooy leer ak yonent bi waaye sëñ Saliou ni leer doone benn waaw mbaa yëg nga ni téere noonu la doone benn téere ñi naan cent quatre téere cent quatre téere yooyu yëpp ay jukki lañ alxuraan mooy téere bi. ci biir benn téere xam nga xaddun la 104. waaw eh, Seydina Adama indi fukk. waaw Seex sa doomam indi 50. waaw eh, indi 30. indi 30. Seydina Ibrahima indi 10. yaa ngi dëgg Idrissa indi. Mm-hmm. Eh, indi 50. ah moom 30 la indi mm-hmm. moo indi 50. Mm-hmm. Ibrahima indi 10. Moussa Isa. ak yonti yàlla yàlla Muhammad ku ne benn ku ne benn. muy 104 muy 104. alxuraan am na fu muy waxee téere yëpp waroon na wax kutubu ne kitaab. parce que waxuma 104 waaye 3 képp xutub la war a doon. kutub la war a doon. ndax kitaab benn. kitaab bay ni ñaar. Ah. kon jam ko kutub. waaye kitaab la alxuraan def téere bi du wax téere yi de téere bi dégg nga fi mu ne. kaana naas ummatan waaxida. fa baxa sallahu nabiyina. mubashirina wa munzirina. wa ansala. maahumul. kitaaba kitaaba bil xaq. waaye nañ ma déglu waaye. Mhm. yàlla na ni. da a mhm. nekkoon menn mbooloo. Mhm. après ngeen réeroo. wa an ma yónni yonent yi. yonent yëpp bi ma leen yónnee. nabii i waaw nabii iina. kon jam ko la. wa anzala nag. Mhm. maxahum. Mhm. ñoom ñëpp yonent yëpp ma wàcceel mhm. leen. kitaaba téere bi. maa wàcce yonent yi jox leen téere yi ma. bu fekkoon dañuy jam lépp. waaw moo war a gën a. waaye wàcce yonent yi. jox leen téere bi. looloo tax téere yi ngay gis yëpp ay jukki la ci alxuraan. bi téere yëpp matee. Mhm. ca la alxuraan wàcc. te da ngay jàng sumu fi Loola. sumu fi Ibrahima. wa Muusee. ñaan seeni téere. seeni téere. waaye téere yëpp genn la. sëriñ sax benn téere benn téere rek. kon da nga cee dégg mooy principe bi benn ku ne da ngaa andi woon jukki. Mhm. téere yëpp mate ci rasulullah sa ba xam nga ne noonu téere yi doon na benn nuuru doon na ko benn. Hmm. nubuwat noonu doon na benn. moom nubuwa. nubuwa muy ak yónent. ma foog ni daa wër daa am nubuwa Isa am bopp boppam dégg nga Muusa am Adama am. kenn amu ci. kenn amu ci. kenn doo nga am nubuwa. muy yónent bi. Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nubuwaam ci la nii sàkkal yurinte bu ne hmm. la yàlloog yow yàlloog sa jamono nga yóbbu ko wallaay ndeysaan benn ndaa la ku ne dañ lay tànqal dëgg la koppa jaaru jamono ji ñu tànk ci ndaali kopp loolu sëñ Saliou lu mu demee léeg-léeg ñu ne jamono ji kat kopp la laaj waaw ñu tànk ci ndaalu ndubu woo luy la ji luy dalil ji yaa ngi dégg luy dalil ji ci alxuraan mooy alxuraan li muy bari bari bari bu hmm. tuddee yonent yi hmm. di tudd seeni nubuwa du wax ay nubuwa ak nubuwa lay wax aaya bii daa boole yonent yëpp wala xad arsalna nuuhan ci suurta Hadiid wala xad arsalna nuuhan wa ibrahima hmm. hmm. wa jaxalna hmm. fi zurriyatihiman nubuwata nubuwata wal kitaaba wal kitaaba fa minhum muhtadin wa kathiirun minhum faasiqoon xam nga lu yàlla wax yón naa yonti yàlla Nuux yón naa yonti yàlla Ibrahim ak seeni sët ñoom ñaar yonte yi jeex nañ parce que yonti yàlla Nuux moom la ñu tuddee abul anbiya il mooy bàyyi yonente yi jiitu yëpp dëgg la Ibrahima tudd abul awliya abul anbiya il axirin mhm. mooy bàyyi yonent yi mujj yëpp mhm. kon boo tuddee nuuhin ak ña jiitu mhm. tudd Ibrahima ak ña mujj total lii nga yonent yëpp yàlla ne maa leen yónni jox leen nubuwa ga jox leen nubuwa ga te waxut nubuwa ak mu doon jom waaye nubu ata jox leen nubuwa ga ak téere ba waaw yonente yi cent trois cent treize. trois cent treize la waroon naa mën a doon nubuwa. nubu waaw wàcceel leen nubuwa yi waaye benn nubuwa la leen wàccee. genn noonu la wàccee genn diine nag. loolu xam naa beneen waxtaan dina ñëw waaye diine it sëñ Saliou benn képp la. benn diine am su ne diine yi ngay dégg yëpp alxuraan nee na benn al yawma akmaltu lakum. diinakum diinakum. waa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islaama diinan diinan ah, waxu ko addiyaan de diinan diinan <laughs> huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa diinil wa diinil xaq mooy diina jig li yusxirahu uh, ala diini ala diini kullihi kullihi gis nga li ngeen déggoon yëpp ñu koy mm-hmm. wax ay diine mm-hmm. dafa mel ni jëmm ju doon juddu rek mm-hmm. génnee tànk génnee pooj génnee ndigg génnee biir génnee dënn génnee loos waaye bu bopp bopp waddee ba mu toog ci lañ naan nit ki nit ki waaye tànk bi kenn du ko jox tur jàngal nga ñu ko du génne loxo ñu jox ko tur waaye jëmm jëpp la ñuy maase jox ko tur ne diw mhm. loolu nag mooy diine lislaam diine lislaam leneen lépp da doon wàcc mhm. loolu tax sax yàlla bi mu bëggee jàngale ni diine benn la Jérusalem la ñu yóbbu Sidi Salam fi mu ne chrétiens yi dañ koy màggal. Mhm. juif yi di ko màggal. Mhm. l'islam di ko màggal. wallaahi bi sax bi muy rañaan. Mhm. yàlla ni ko demal ba Jérusalem. nga foofu bunt be ubbeekoo. wallaahi nga yéege fa. xoolal foofu ñëpp la jiite. ñëpp la jiite ñëpp bu mës a andi diine. ñëw nga ci ginnaaw mu jiite la. kon diine it genn la. genn la kon gis nga ni kon. kon leer googu yi ngi ci biir. ñëpp a ngi ci biir ci foofu lañ tolloon ci parenthèse. kon niñ ci nekkee noonu ci biir. waaw borom jamono yëpp it noonu la nekkee noonu ci biir. Mhm. leeral nga kon yónnente ya. Mhm. Euh, kon bu bu bu yaatuwaatee. nan la ca borom jamono yëpp ne nekkee. waaw comme na ca aadama ak Isa nekkee leer na. Mhm. la ca Adama nekkee ba Isa leer na. noonu la ci mboolem saxaaba bu Musa doon na yónnente bi. mu nekkee. noonu noonu la ci mboolem. xut bu samaan bu Musa doon yónnente bi. nekkee waaye nag a total lii c'est lépp tout. Sëriñ Tuubaa noonu la ca nekkee. moo te moom it dafa am beneen maqaama. beneen maqaama mooy daal doon na yónnente bi ci leer gi. te doon ne ko doon nañu wow. Euh, lil Moustapha nawaytu yu jaddidu. sunnatul xaraa wa inni ahmadu. kenn musu ko ni doon ne kenn musu ko ni doon ne. kon nag sëriñ bi. Mhm. lii nii la ko yàlla tànnee. xablal xalxi xablal xalxi mhm. nga xam ni kon possibilité wax ak mindee fi xablal xalxi mhm. loolu lu mën a nekk la moo tax Serigne Touba ne dimension màggal gi nag dimension boobu la taxawee ñu ngi ci sababu xaybati ya an allaha araada an anaala minu jaax wallaahi an allaha araada an anaala minu jaax wala boog an allaha araada araada rek lan iraadatu googu nag sëñ Tuubaa nee na moo sabab màggal gi mooy màggal gi bëgg-bëggu yàlla la mhm. yàllaa ko yéene mbindee fi yéene ko yéene ma ko man ngir jox ma ci daraja ju kenn amul waaye yéene ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir liggéey bi ma ko war a liggéeyal mhm. waaye yéene ko xeet wi ngir ramm gi ma leen war a ramm mhm. nee na film boobu nag fil ësal la ko yàlla dessiné ba mu rafet di xaar 18 safar jot man la ko yàlla joué loo mhm. man mi ko joué loo nag muy Serigne Touba. Mhm. moom lañ doon wax tànn gi ko yàlla tànn. Mhm. kon ndax yàlla ku muy jox mission bu toll noonu. nga xam ne mission bi Serigne Touba nee na màggal gi. def yàlla def na ci yiw wi mu ci def. màggal gi pajuk aajo la ngeen bindee fi. waaye ijxar bu jox ñi ilaa xaw mi. wala tag fi naa. yow ma jamihil xalq niiraanaa nga xam ne ak mucc ci safara ak fegu ci safara. daa nekk ci màggal gi. xéwal yi ci nekk yëpp muy mission bu rëy. ki yàlla yi tànn. ngir joué ko mission boobu. kooku du doon n'importe qui. Mhm. kooku mooy Serigne Touba. Mhm. Serigne Touba moomu nag am ñaari dimension. Mhm. Cheikh Mat Bamba fil xalxi. ak Cheikh Mat Bamba xablal xalxi. fil xalxi moo feeñal Ahmadou Bamba. moo feeñal. borom Touba. Abdoulaye moo feeñal Abdoulaye. xaddimu rasul moo feeñal xaddimu rasul. waliyullah waliyullah. waaye xablal xalxi nag moo jiitu yooyu yëpp. mooy ñu doon wax ak moom nag ci xablal xalxi. mooy jëmm ci yàlla teg di ci wane yàllaan ji. te loolu Sëñ ñu ngi wax téléspectateurs yi nii dañuy ànd ak ñoom ci safar gi. ah siifur jeexagut. ndax foofu dañ fay teg suñu baaraam. te bu ndikkee tàmbaleewaat fa. tàmbaleewaat fa incha allahu rabbi ndax ñun ak yéen ci cëy Serigne Touba ji fii ci leeral. wallaahi seen émission cëy Serigne Touba bi ngeen miin. Mhm. na ngeen xam ni Serigne Saliou sàmm ak bu Boubacar Konaté dañ mhm. koy ànd ak yéen téléspectateurs yi fii ci télé bu mag bi. ci bis bu set. fii ci Leral TV tous les jours. Mhm. de la semaine du lundi. Mhm. au vendredi. Mhm. à partir de vingt une heures trente. ci safar gi ci safar gi nañu ñëpp xaar. incha allahu bi kon nag ñu jox dig dégg ci bayit bi sababu xëy ba di ana la araada rek ci lañ jot a toll fiñ ci jot a toll ci suñ bamba xablal xalxi teg leen ci seen baaraam dañ doon leeral xalxi yéen ni manee nekk nga am avant mindeef ci alxuraan kon bu ndikkee foofu la ñuy àggalee bu ñu jeexalee anallah araada. door a jàll ci an. amaala euh, ñu ngi uh-huh. jàll jàll ci jàll jàll ci saafin xadima. bu ñu doon jàll xadima fi daw mi. incha allah kon nag lu jiwu ba jeexul rek. kon nan nu topp rek. te kon nag lépp ci njuumte rek nañ ñu ko jéggal. te xam ne ñàkk xam-xam la ñàkk xam-xam la ak gàtt allo. waaye yéen a ji ma doon ñëpp bokk jariñ. wallaay ndeysaan yàlla nañu yàlla yóbbu ci màggal. li ci baax nag jubug sëriñ bi li ci baaxu sëriñ bi la. kon nag sëriñ Sall wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ما شاء يفعل من بال